Orange Money gën a yomb gën a wóor. Orange Money. ren jii ak Orange Money daw ñuy gën a tabaski fii ba tabaski gi taamu leen di jëfandikoo seen kalpe Orange Money moo xam ngay yónnee wala ngay jot xaalis ci biir réew mi wala ci bitim réew ngir jot ci benn ci ñaar fukki xar yu ponkal yi ñuy mayee semaine bu nekk téléchargé leen gaaw seen application Orange Money gën a yomb gën a wóor gën a saqan Orange Money man de ren xaw ma sax ndax tëbësi dina am ren ji ragal naa ñu fomm ko de man maa génn ci groupe téyeer yi maa ci bokkatul bokkatuma ci génne leen ma ci du ngeen dégg vocalu ma réew moom moom patron ak tëbësi dafa war a tàmbali waaw pend tëj na de pend kañ la tëj yow bàyyi su ma la yónnee ni la demal ma ci messer bi ngay taxawaalu ci mbedd di ñoo naan dafa tëj waaw su de mu ne dafa fekkuma foofu dafa tëj. waaw mais sëriñ soso bi xanaa ubbiwul. soso yow soso ñu lépp soso ba liste bi fees. soso même bu ñu ko labalee xol bu rafet la yor sëriñ kër la soso xam na liggéey li ñuy liggéey. patron naaj ay dem soso di fa lebaat mënu ma ko. doo dem si soso mu jox ma fermeture bi ne ak benn système bi nga ni doo dem. waaw tàng de. salaamaaleykum hmm, baax na rek. boo jeexee rek kii moo la jeex. billaay sëy. boo amul yaram rek kii la. wax nga ba amatoo graisse ndax kii. jeex naa tàkk sëy sëy maa ngi nii jeex tàkk. yaakaar ni dana la ci nga ne la. est-ce que xam nga sama génn ngaa ngi yokk gis nga filtre yi mu commencé génn gis ngeen. mi ngi man man kay bi may dugg si dégg naa lu ni tef. parce que li may wax dem na ba moom xajat foog ma yokk. kii bu ko sa àq dalee. di nga dellu Fuuta. mooy raw au fond. waaw baax na rek. Hmm. Hmm. nga ne lan yow. lan la yow yow tàmm nga boo sàncee ni ivoirien rek bëgg a xuloo. moom da nga ko taal waaw réew loo rek. eh yow comme yaa ngi inférieur. Eh. respecter sa patron. eh. eh. da nga jóg tuuti eh. jógal nga may usine ba taay. man de sama patron ba may jàng métti. jógal nga ah. loolu moom mu dóoraat de. kaay wax ma ko. kaay wax ma ko. maa ñu waat ko dóor. kaay wax ma ko. maa ñu waat ko jàngal nga bañ. xool ka mu mel na fataaye nii rek. ndox xam na siiw kër. bi ndayam déggee muy dégg ndayam naan. enfant aidé enfant enfant aidé la xaw ma mooy benn doom ba tey daf xale bi. enfant unique enfant unique boobu ñuy wax xale bi unique yanu na enfant unique bi. waa Touré. Hmm. mbaa tabaski bi yaa ngi ciy gis sa bopp. sëy léegi suñu groupe whatsapp bi téye léegi moom laa dama ni quitté naa bokkuma. sëy téere yoo xam ne bu ñu gàddoo ay ñaw mu fees xanaa ñu jox seddi ñeneen ñi. tabaski bi gisuma ci sama bopp dama ndax ren tabaski bi fomm nu ko. ndax sëy kaay wax la ay rudo laay nekk di omb ay torsion ay ay defukaay mburu sëy instant yi nii moom tëbasi bi gisaguma ci sama bopp euh, déglu ma wax la pex xam nga waaju baax baax men baax men waaw am na xaalis xamante naa nit ñu baax eh kaay ma xamal la ñoom maam booy jaawoo ñoom Wally Seck ñëpp ay xaritam la sëy man sama yoon nekk ci ay xaritam man li ma xam moo di. Mhm. réew mi daa soppiku réew mi ku la lebal partagé na la groupe whatsapp la lay fayoo ko tiktok instagram di la wax wax yi ñaaw mieux vaut ma ànd ak sama ngor rek. wuy ma wuy ma moo gën si tabaski bu échec bu la joxee nga ràmbale sa place bi jënd say tusi ñaw jaay ma la nga jaay say tusi. li ngay wax idée la ah. damay test dong dinaa jënd léegi woo ko su lu ma xam après mën naa la expliquer. jeex man man man moom du ma fàttu yàlla di gàddu góor waaw yow na nga doxal say mbir rek. Ah. du indi ataay doo ko bàyyi. ana ataay ji maa ngi ñëw dem aw ma taal. dem ni doo toog ah, moo am woon lu ma ataaya. kenn naan naanuñu naanuñu. waaw ma xaar ma woo baax demandé ko. oto doo koy tere ñu partagé fii ku nekk yaa ngi sa bopp. waa baax maa ngi lay siyaare. waaw ça va ça va bien yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. waaw dama am nag di waxtaan ak yow ndax xam nga jamono ji ak liggéeyu téer bi fi mu toll ak jamono nu mu kiiwee ma bëggoon nag nga financement benn financement bu minimum rek deux cent soixante quinze mille yooyu rek soo fee mu mën si tàmbali liggéey jënd ay tissu. Eh, damaa ko baal ma de baal ma de bañu ko de ma xarit gi sama lépp nga. dafa def xam nga sama koom-koom lu bëri li ma yoroon def naa ko ci li yàlla toog maa ngi su ma moom jox la waaye Ukraine Russie fi nekk nii xanaa nga woo Poutine waaye fi de baax noonu nga koy gisee. non bu ci mer de guerre bi la rek lu bëri la la borom ci réew. waaw baax na waaw baax na baax na jërëjëf. àdduna moom ku deewa ci fi li nga yor moom kenn yóbbaalewul li nga am waaw baax na baax ma nit xuloo eh, baax kan man alalu ci mere borom de ah, jàmm rek moo jërë ñaan écrin moom seen guerre moom yàlla na jeex ak jàmm man dama xam loolu dugal ñaw loolu dugal ci ñaw ñaw dafa foo jànge ñaw amee say conseil nga téye ko je vous remercie. non je vous remercie bul ma expliquer ay waaw waaw jërëjëf. waaw baax na waaw baax na nit ñi sax amuñu temps sax amuñu ay temps di yalwaan kenn yàlla bari na sut bon ba dee nit yoo xam ne dañuy yor xaas téye seen xaas di ci dund ba dee yàlla aw ñu doog doogay dimbale doomi aadama yi. patron patron aw tegal tiidu xoore ku tegal tiidu xoore ah yow instant yi ak fu jamono toll koo wax mu ne la guerre Ukraine suukar guerre Ukraine diwlin guerre Ukraine étudiants yi añuñ guerre Ukraine sa jabar tegal ko ataaya guerre Ukraine instant yi Poutine moo téye lépp Poutine nag moo war a yeewee askan wi yeewee wàlle la. parce que instant yi da ngaa dañu laa yeewu bu dëgër. waaw patron tooj nelaw jugal nga may yeewee nii nit kuy nelaw di seet di reposer kooram lan nga koy nekk di koy yuuxu di koy lan nga may doyee ah problème doo problème indi naa la solution démb yaa ngi toog fii di wax ay waxu financement instant yi nii amal naa la ñaari option option A mooy nga dem banque leb xaalis. tàllalal ba caaka njaay man man mii Touré may sa biige ndaa kati maa leen caa man danaa dugg ci benn banque naan damay leb. ah yaa banque jawa xaalis. yow eh prostitution prostitution bu banque xam nga ni muy demee banque ak yéegam ak wàccam ak signature am ak photocopie crédit man Touré may dem di leb banque gor yi baax yi di ma gis mooy dugg ci banque di leb di génn. xalaatuma ko. léegi ma jox la option B ak orange money. ooy bu ma soxla orange money xam nga ni li muy leble weesu lu dul crédit deux mille deux cent crédit mille franc crédit cinq cent. li lay wax sa ñàkk doo yow doo gëstu. ana ajee waxtaan ko xew internet ko. maa xalaat sa àdduna yëpp da nga ko jël mesure ba nga toll ak centimètre. ak orange money mën nga leb ba cinq cent mille ci sa application orange money. téeméeri junni. moo yow. orange money day lebale ba téeméeri junni nga wax. cinq cent mille dala koy lebal dërëm ba cinq cent mille. xam nga nit ñi dañ lay lebal fii di la vilipande waaye Orange Money da lay lebal ci sutura nga fay ci sutura. yaa ngi sa application Orange Money. waaw da ngay dugg rubrique banque ñoom dina la na ngay def ba lépp. ci application ci application nga dem sa rubrique fu ñu def banque. rubrique banque. rubrique banque ngay dugg boo duggee daal moom moo la yomb. nee naa dafa sàmm. su ma fi nekkoon baaxul. woy. ci man très mal même très waxuma sax mal waaye mal xenciwuma xaalis seenuma xaalis dégguma xaalis avec ça man nan laay tabaski mais foog ma teg pexe yu leer naññ ba génn ci. mais ci sama biir kër par force xar moom nu mu mën a def lijjanti ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sama càmmi. ça va bien soxna si. Euh, au fait dama bëgg nga teel ma bagage yi ba ci tali bi nii rek ma jël taxi. bagage yan. nii nii ma yor dafa diis te attanu ma ko. dama la nduroog dokerman wala man dama la nduroog kooyenu wala man dama la nduroog un vaurien dans ce pays. ba man nga war ma wax ay waxu kooyanu quoi nga ñëw xool ma ak samay sagar nga ne ah kon daal kii docker man la kooyanu la day fréquenté port di yenu ay dàmb non dama lay laaj est-ce que duru naa la kooyanu man yow kii non looy ma fii ma wax la man duma sa morom dans ce pays daal ki n'a pas n'est pas daal yow looy énervé non amul énervé ak sañ naa la woon bul ma ko waxati du ma kooyanu man 10 000 laa la bëgg a jox bu ñu yeggee ba tali ba. ah. ma ne 10 lay fay rek man xulóowu ma de. non man xulóowu ma yow de waxuma la fi dara lu négatif nag waxuma la fi dara lu négatif dama ni la tey jii bu fekkee da ngay da nga euh, <coughs> bagage yi nga ni fu mu jëm. ci tali bi nii rek ci tali laa jëm. 10 soo ma ko yóbbulee ma fay la 10 000. amul benn problème. non non garaaw ma yóbbu. déedéet ii. <laughs> man de lii li ma ko liggéey port. Ah. laa ilaa man ñoom ñoom euh, ñoom docteur Cheikh Ba ñoo ma xam ak ñoom docteur Bensoumou. wuy sama yow eh sëñ bi sëñ bi sëñ bi yéen ki sëñ bi wuy yaay boo bi sëñ bi kaay kaay yoon bi si xol yoon bi nii la nii la. eh bagage ye ngi nii eh. sëñ bi reviens sur terre. lu ne ci yoon bi nii la. lu ne ci saak bi. again oui. patron moom dinaa xam tey ñu jël mesure nan lañ toll man damay ñëw rek du ma xam ñuy jël mesure poitrine deux cent yi nga xam naan seen kër manqué wu meew ans trois cent soixante quinze <laughs> mbette paro publicité <laughs> kii de ma mën na tas réew mi poitrine 45 moom yii moom ay xale lañ moom ay poitrine 25. tegal tegal ah kon yow di yow ndekete numéro nit ñi ngay jël di leen focal. nii eh, nga nekk si atelier bi. ma mesure laa doon xool. baax na alhamdulilah. ndax nga de yaa ngi rek di dugg rek lu xew. maa yee ree maa yee ñaq. Eh? lu bees kenn mës koo gis lu neexe yàlla dogal na ni. Orange Money via banque falaa demoon. te li ma gën a neex ci mbir mi moo di. ki la kay lebal doo ko gis ah. techniquement ci taj taj yi kii kii bëv nga récupérer faj say soxla. ñu ngi léegi nag xoolal sa téléphone yàlla dogal ni dugal naa la foofu i benn affaire. Magoro mën nga naane ka ataaya rek xam nga intelligence bi ma doon wër ci Afrique xale Afrique pour man on est les intelligences ndakate ba tey l' intelligence mi ngi fi montré nga ko jënd ci crédit ña ñaari junni la crédit connexion yaa ko moom fi la transfert envoyé yombe fi la gën a riche fi la gën a assuré dix mille francs matul ñaar fukk eh, patron yow ndeket naan nga système orange money bi léegi de eh, man orange money mooy dëgg-dëgg jàpp ci man mooy jàpp ci Orange Money ko jàpp ci Orange Money jàpp nga ci man man ñoom dama leen a jàpp tey ak ëllëg. kon jàpp naa ci yow. mooy jàpp nga ci Orange Money <laughs> via. banque <laughs> xam naa ne ASC Bële Banaa bi troisième. mooy division <laughs> mooy ñi taxawoon. mooy Bële Banaa troisième division. pengoo yooyu comme ay agent nee naa ne dem leen ngeen reste asu reste à terre. te li ma ci gën a métti une trois ñu laaj sa carte xam nga lu leen def. Hmm. temps amee lañ leen def pistolet bi. temps la nii ñu waaf. ma leen dem leen à terre. via banque bi moo moo leen doggali. ak via banque. Ah! lefte ba muy moom. jaam yi kese. mais wuy balaa balaa balaa maa dem. borom poitrine 200 bi buy jël si ñam bëgg naa xam. am na tamit 190 bi. ñooñu ñëpp seen jëkkër dafa gaañu ay jigéen lañu. seen jëkkër jooju mooy mère Roqoye ak Adja Diop ñi ngay dégg ci koñ bi. Ah. te seen jëkkër dee woon dee gu métti. baax na baax na merci. bon maa ngi dem ci pend jënd wecc. waaw baax na jëmal jënd wecc waaw. àdduna moom booy dund da ngay xool li gën ci yow nga nekk ci Orange ne bi gën ci ñi am jafe-jafe soxla xaalis amoo ku la ko lebal Orange Money ci boppam par via banque lebal la ci sutura ma sàmba du xam ma demba du xam nga jël xaalis boobu liggéey faj say soxla delloo ñoom it ñu lebalaat keneen ci réew mi loolu yokkute la defaraat sama place organiser waat di jaagar jaagari def yëf yi patron am samay moyen fonds de déroulement <laughs> sama caisse noire personnelle Tapha Touré <laughs> lii neex na yàlla doolu jàmm na ngi dem alhamdulilah ça bien alhamdulilah arkal giri eh, giri ah bul dóor bul dóor eh, ah, ah. yuy du xar yu ñu dóor de non pour ñu mën a taxaw normal ñu xool la. xam la non ñoom min nañ ma. Ah. ñoom def nañ école buñ duggee da nga gis sama lèvre <laughs> sama assis yooyu lañ xam. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan donc gétt gaa ngi nii waaw. lenn nag laa naa la ko wax fii aw ma caaxaan ci liggéey. 4 heures du na la fekk nga jóg. noo loolu kay amul wax man damay yeewu fajar. boo fekkee xarit di nelaw bu leen yee. ma bàyyi leen ñu seese. xam nañ heure bi ñu war a jóg xam nañ seen heure ndékki bu fi wuyu téléphone bu fi def appel vidéo bu fi def dara. ah pour bañ leen terrasser. voilà du ma leen terrasser. dafa présente Balla Gaye mi ngi nii taxaw. ah Balla Gaye <laughs> gis nga ak yaru. <laughs> Modou Lo mi ngi nii moom boo koy sang daf ko dafa am fii ci ginnaaw gi. Ah, waaw waaw contre Ama Baldé bi. waaw wax nga dégg waaw dafa am blessure. Gris Bordeaux rek ci kër gi moom bëggul naaj. ah bëggulul yomb nag. Gris su ma ko waxee rek moom day waaw ngi noonu. Siteu moo nekk moo taxaw nii voilà day saw rek mi ngi noonu. bii doon nga ma ko wax moo nekk international bi. Euh, Aliou Badji. Aliou Badji Karina Karina série Karina. mi ngi noonu mi ngi <laughs> noonu voilà moom incha allah léegi nag ki nekk nii fi fi naaj. bàyyil hmm. bu ñu taxawee ngay jël di masque wu loolu baaxul. donc ñu ngi noonu saa yoo hmm. utal 15 kilos pain. dafa leen beurre la matin chocolat li soir. Hmm. thon après midi ndax seen gémmiñ ñi xaw a am. lu ñu sax dañuy seere de. samay xar duñ seere bu ñuy puub dañuy sonna de. yow yaa dof yow xanaa yaay seere ah. man bu may gisee nga dëng ni damaa defoon da ngaa seere sax yow. ah man kay seere moom donc yëf yaa ngi noonu. Ah, baax na waaw baax na asalaamaaleykum salaam. ah chef bi na ngeen def. alhamdulilah na ngeen def. sama protocole ah, yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ngi ñëw. waaw waaw incha allah incha allah xanaa ah, kii léegi moo fi liggéey. waaw kii laa jël dama ko doon wax règlement euh, li gétt gi nangu ak li gétt gi bañ. Euh, ku sawar la may nuróol nag. dama ni loo gis ci àdduna. waaw jox ko kakam moom jox ko xaritam dëgg la. gis nga gétt hmm. pëlay xaritam oh tu as très bien fait merci beaucoup lenn moom fi ndoon information bu gàt nga préparé xaw ma lu ci jublu moo ko xam kan la Tapha Touré démarqué wu na ci mbiru xar génn na ci carrément moom a na yaratul ah bon atelier tailleur lu ubbi bu mag Tapha ñi ñaa ngay dugg ti génn am ñawal ma indi sama tissu jox ma tissu Tapha trois machines ñoo ko wër moom lay ñawee day laal bi ba yàgg daal di cuk cuk cuk ba yàgg daal di pousse boobu xëcc beneen bi nga dégg dégg teef ndek am na benn tissu bu mu xotti. mu xanaa ay baas lay ñëw. teef jooju lu mu yoon ci tissu jàmbur. waaw yow ay tissu yu am valeur la tabaat di yow di yow wuy ma dama lay wax de. xam nga moom sax ñëw na fi di ma ah, laaj financement. Mhm. ma takk biiram. xaw ma kan moo ko financé waaye na ko kooku laaj carte d'identité am dafa ay mbiram leerul. yow nag je suis très content de vos nouvelles. mais mooy yoon. yaay samay tànk yaay samay nopp yaay sama lépp ci palaasam boobu. na soxo xol sedd. am nga fi xaru tabaski. dama ne na sa xol sedd loolu rek laa soxla. comme am naa fi xaru tabaski. Mhm. yow jàppal ni bépp information boo soxla ci Sénégal. waaw maa raw renseignements généraux. voilà léegi yow. ba ci biir palais. boo ca soxlaa information boobu laa dem wax la. maa la wax lii man. voilà léegi jibi hmm. les élections présidentielles 2024 comme mooy doon président fii Sénégal. naa war baya Eh, tegal boole <laughs> kasarool ko <laughs> ay tafatuwa yàlla na ñool waaye Zeyzen rek ba xotti seen yére rek kon lay am problème Zeyzen rek ci caaya oh lay la ish ish giri bala Modou ma loolu wax nañ ma say affaire nag blessé dong dafa tax ngay reewantu ni si kaw nii ay jaay reew nii su ma la woowee sax ngay jaay ma waaw waaw. waaw ah. lii laay lii laay bañ bëgguma lii. lii wax naa la ko au début ci njëlbeen laa la ko wax bëgguma bëgguma kuy kuy dàggasante xarit yi weccante ñoom ay parole bëgguma loolu. ah xarit bëgguñu gaaruwaale gis nga ñu sëgg dañoo rus dañoo am kersa. yow boo xamoon li mu moo loolu di wax si suuf. lu mu la amuloo booy kii sax. lu mu lay wax ci suuf si suuf loo xamoon luy wax ma man maa ko mun a dégg en tant que poul maa mun a dégg li muy wax. waa Kaaw waaye yow boobu léegi jaay benn xar soxeeku woo sax <laughs> ah. Eh, baax baax rassure-toi man maa la wax. man te maa génne xar ci mbedd mi benn yoon. <laughs> boo ko génnee boo koy jaay. fii laay jaay lépp te du ma bousez mètre boppa du tooy deret du tuur. ci naka. maa la ko wax. yow xam nga li ngay wax man may doomu pul maa ngi def wante à ligne gars yi dañuy jënd par Orange Money. ah. ma yow xamuloo ko am na ñaar yu ñëw ne ma jàppal maam booy ba jaaw ñëw na xool ne ma jàppal pule ah ama maam jàpp na oma seen waaw bul xalaat nag man dama am ay affaire si suuf yow na naa jaay boppam xoolal ah Modou Lo jar ah waaw moom mystique la waaw mystique la waaw ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal ku ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal ku waxaale eh, jëndal. eh, eh, eh. fan. ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal. diwal de diwal de. ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal ku waxaale jëndal. Kaaw. eh yow saafara bi may wis pour lan la. Ah. saafara bi pour xari la man duma xar. kan moom may tabaski ak kan moo may jënd loo may wise dama laa wis waaye doxal fële nga ne ma kan yaa ngi ni tooyal ma xepp ah loolu tey ma loolu day tax nga gën neex rek eh bul ma wisati de xam nga lu ma lay xamal da ngay mën liggéey mën a ko nga génn gétt ga abal ma continuer sama liggéey lan nga may wise baax yow lan la jog nga ma xarit dinaa ko jaay assuré naa la jog naa la assurance bul tiit bul ragal dama jël saako ngooñ ma nga sotti leen ma jox leen saako ngooñ gaawal tuuti ah dafal nga leen toog ci ci bëccëg ah am nañ toog beew bee dafa réew nee na du lekkatoo. am latal ko. nee na du lekkatoo am latal ko dama ko fàtte. bee du lekk dama mujj yëkkati 1000 francs rek ma jox ko pour mu xool lu mu bëgg mu jënd ko. Ah, bu bu yàq xarit ci xaalis waaye bu leen di jox xaalis bëgguma loolu. Ah. bu leen yàq ci xaalis. ah jox leen ton rek ak ak ak ak kii. Ah. bii am latal ko. wànq bii waaw giri boo rëmm. lu la ci fay jaay ko. kan giri. luñ ma ma jaay. luñ la fay ci giri boo rëmm laa koy jaayee na sa xel sa. giri moom nee na sa xel daal. luñ la fay ci giri jaay dinaa ko jaay ba ne nii. te nga ne lii ndax prix bii laa ko jaayee yow xanaa xam moom. xoolal ku la ku jënd giri may ko may ko kii may ko yaaram gay. maa bañ du ma ko def. pour daan jënd kan mooy jënd. nga eh, eh, yaaram mun naa ko jaay. Ah. billaay mun naa ko jaay. Ah. ndax ñaw na ko garaaw man Sidy Diouf dafa ma jaaxal trop simple dara dara dara. nit ñi di ñawlu ay garam bu jasneer mu jël bâchen bii nii kii da koy ñaw garam. fermeture bi nga doon seet mu ngi nii. yow lii mooy sa fermeture. dama lay laaj ndax lii mooy fermeture. bouton. yow li nga def ci terre trois ans xamee woo bouton ak fermeture. waaye yow. lan la. man bi ma fi mujj fii dafa meloon na saabu. ngir yàlla buñ catu buñ buñ catu rek. waxuma ak yow nga mel na boros aldan nee la nga moytu. sëy képp ku yàgg def lu baax yàgg yàgg di nga daj lu baax. ah ça c'est sûr et certain parce que tamit nag Touré lii jomb la ah lii jomb la sa xol yaatu na ñeme nga partagé waaye xam nga li ma bëgg xam mooy Touré ni réew mi méttee. ak ni fi xaalis jafe. Touré nga fexe ba lijjanti sa bopp. Ah. te coow jibul <laughs> Touré. wax ma secret bi. waaye dimbale ma rek waaye bàyyi ma partagé ko rek sëy xibaar gii ma lay bëgg a jox su ma la ko joxee xam nga lu ma ci bëgg a après mhm. maximum de partage yaa ngi dégg ma am ay kër nag. yi ma la déggoo li ma la wax de ah. damay laal kër yi. Ah. partager ah. commenter positivement. léegi nag li ngay commenter positivement xam nga lan la. Mhm. du dara. orange money moo fi nekk. xam ni doomi aadama yi soxlaloon ay moyens pour travailler. ñuy lebale. Ah, sëy lebal bi nag lu yomb gis nga ci dërëm lay tàmbalee ba cinq cent mille. eh waay un franc jusqu'à cinq cent mille francs. loolu orange mu ne moo ko defati. nga liggéey. Oh. fay ñu lebal say morom ñu liggéey. loolu saa bu ma nee orange mu ne moo fi ne am ñu xuloog man waaye dëgg-dëgg orange mu ne moo fi ne ndax xamul tax. Ah. moo fi gën a yombale envoi. Uh-huh. gën fay yombale retrait. Uh-huh. ba bitim réew booy jot xaalis ñoom ñoo gën a yombale ay frais. Uh-huh. kon dama ne bu ñu wëlbatikoo di labal askan bi seen xaalis. ah dëgg-dëgg def nañu leen war. man de duma ma toog. damay daw léegi jël sama portable. dugg ca application orange mu ne ma leb la ma saf. waaw wuy ma ni orange merci. <laughs> wuy ma euh, nii may waxee yow. xam nga mooy dugg moom ci application foog nga yor connexion. fi mu ne connexion mooy wax dara ni mhm. naa la dix mille. ay loolu bëri na. te xam nga dix mille yi kat. frais bi mhm. matul sax cent franc. geste symbole la noonu rek. presque c'est c'est c'est xam nga ni dix mille francs nga xamante ni frais la ngay fay matul sax cent francs. yaa ngi dégg léegi jënd ci crédit def ci li sa connexion mun nga si dal sa sa weccit huit mille. dama nga ak Iliflex bii. Hmm. déglu ma la deux mille francs. damay connecté wu ba naaw. mooy puus. waaye nag comme na ngaa ñeme def lu baax. Ah. li may wax na yam fii. ndax yow laa gis ne wax. Mm-hmm. waaju baax. Mm-hmm. ma ngay def opération tabaski bu rëy. yor ay xeetu kuy yoo xamante ni seeni i jën kenn xamul li lan la. waxati loolu. nëkkal xafaar. xar yaa nga toog mu jëndal leen brosse à dents xar xar yaa kenn xar ya daal babet la ñuy takk bu ñuy lekk ñu tegal leen seen ay plate seen ay pain chocolat pain beurre xar yi loolu la ñuy. xar yi ku leen tuddee. ay mbër. tuddeewul leen ay nit lam daan nii de. xaru tabaski mbër bi ma ko ay ay Balla ay Modou Lo ay ay ay moom daal koo xalaat ci mbër yu mag yi. Hmm. tuddee na la ko. dafa mystique nag. dafa moo tax nag ma bëgg nga jëg sa bopp. Touré sangul takkul suulal suurul maa la wax lii. léegi na xamoo lu may def. te hmm. xibaar bi nga ma rëbbi def presse nii ba ma xam ko. te lii ma wax mu yem fii. fi la yem kenn ko partage te positivement lañ koy commenté. mooy dëgg. dugal naa la dix cum mun nga si jënd crédit. alhamdulilah jël weccit bu sew bi. cum faj say soxla. ay waay te transfert bi kat matul ñaar fukk. bu doon saa boo ma kat defal. sama benn baaraam bi banku. Ah. kon heure bi kuuñ naa. kii dama ni damay laal kër yi partagé commentaire positivement. patron ku la indil. mën na la yóbbul nga jàppee ko noonu tamit. yàlla bëri na sutura jàppee ko noonu rek waaye bis dana jot dinaa ci mës a gaañ. àdduna daal dugg lu sa yoon ne ak wax lu la laaj noppal na nit torop nee bàyyi na lépp lu mu jàppoon moom nee bàyyi na lépp ndax Macky Sall magam la waaye ci suuf moo dàq Adji Sarr ah. nee moom nangu na moom nii lépp lu mu waxoon retiré na ko nekk mbindaanu Sonko daal di ko liggéeyal di ko toppatoo ay doom bu yor dee ñu fay ko am na solo waaye yow kii bi nu mu mujjee euh, ballon d'or bi ballon d'or muy jël xam nga ni ballon d'or bi Sadio Mané koy jël de koy jël de daal man Sénégal jaaxal ngeen ma. ah yéen da ngeen da ngeen yéen da ngeen da ngeen da ngeen daal maanaam da ngeen seen réew man comprendre ko parce que da ngeen gis pay di wax waxu dëgg yow sala hmm. Salah lim fubal ci réew mi. Benzema Salah la Benzema yow yaa ngi ni xamoo ma Benzema ak ba tey xale yi ak Salah. waaw waaw waaw Salah bay a ñëw Sénégal moo ma toppoon. Benzema laa lay wax borom Fass sama nduróowaay. Real la waxee seen sëriñ fan la nekk doo ma gëm. ah Touba Tour gii la nekk. tubaatul men tubaatul men waaye looloo tax waaye gàmm gu Cheikh Ibrahima Pouy woote waa Real Madrid juugaloonu dem dem tubaatul mais nag dinaa la wax dara de xam nga ni nag fi may waxante yow nii Benzema du ay fo de parce que Benzema képp ko am face ci réew mi hmm. Benzema ngay mën a àndal léegi dinaa la ko wax na Liverpool loo xamante ni anglais yi dañ ni ko Sadio baal ñu jégal ñu parce que lii mënatul nekk Benzema dafa dafa am position terrain ba pare Benzema passe décisive yi ñuy def Benzema bu non Benzema. waaw léegi nee na ko jàkk bu kenn piis bi sa Sadio Mané di njëkk def Liverpool xoolul daal. ah ne leen ko jàkk bu kenn piis mun ko di. loolu. loolu tubaab yi ci xam a bëri. ah xam nga looloo tax Sadio Mané ñu tere ko Liverpool. fii daal Sénégal képp ku fi am face moom. Benzema ak sa jour. yow Benzema fan la Benzema Liverpool la ne. nga ngay werante ak kii. xamal ni tamit àq la daal man sonal nga ma. ngay werante ak li nga yóbbu li xamal Benzema fan la waaw waaw waaw Liverpool du bitim réew. Benzema bitim réew lay fubal. aywa Benzema bu nit bu doon c'est yéen xam nga mooy simple da ngeen di jafee fubal fubal lu yomb la fubal lu simple la. man li ma wax ni ko sama jëmm yëpp yëpp sa yuuxu yëpp. ndeke ni kii xam dara ci li ñu wax. waaye ballon d'or bi de ren. Sadio Mané la. non non non. bàyyi bàyyi le ballon d'or. waaw André André. Gojaas d'or kii jëlee ko fi. Gojaas d'or Gojaas d'or. Cortège d'or jëlee ko fi. Cortège d'or. waaleykum salaam. yow loolu lu sooyoon. yow dama lay laaj ndax dama lay laaj ndax vitre bi sa vitre bàyyi la wala sa vitre ndey la kii sama appartient la maa ko moom fëggal nu mu la sawee. ñaw la daa bëgg. ñaw dañoo fees. dama fees en yow la sa xel fees. suñu tool nii dafa yow yaa fees ñun fees ñun dañuy liggéey dañuy daan suñu doole. man booy ceebu yàpp nii rek. simple apprenti du ma réglé. tiim taat laa bëgg. tiim taat. bu ne ñoom ca kaw. jëy. am deux volants. fii def veine yi. Hmm. ba pare nga fente derrière bi. fente derrière bi. waaw waaw mais loolu rafet na pàcc daal. non loolu da lay jàpp. wuy xale yi danoo riis xale yi civilisé yi laa bëgg man. xale day xool lu baax nekk ci. moom laa bëgg daal man. ma ñëw dina commencé. soxna si am nga borom kër. yow kii taa doo rek la yow. jël taay bi gàtt de. cinq ans. waaw <laughs> tiim na ko de. wilaay tiim na yéey loo gis daa am boroom loo gis ci àdduna daa am boroom kii bi na waaw poitrine yàlla moom may na la sutura boo xam ni war nga ko sant bu baax ndax poitrine deux ci mim noo non loolu jeex na amatul santal bu baax sa bàjjan bi la doon jàppale paccal bi côté bii baax na diggante bi voilà fu xaree ni dana wax de ah dix centimètres dix pour la écargue <laughs> xale bi waaw kay c'est bien war nga dugg sànn ventre boo ko wàññi léegi yéen am dara hmm. xale yi duñ bëgg yéegi yooyu surtout jamono ji fuñ sonn jupe bi c'est bon ah. mais bul fàtte ne kii bi. waaw fant non. fant kawe tax tam du la fekk sa kër ñu yóbbu la nga sëy. waaw laa bëgg. bu ma la ko fantalee tëbasi nii. Hmm. billaay tam sa kër ngay tam xarit rek. xaaral ma wala fant bi est-ce que à nii baax na. waaw baax na hmm. <laughs> billaay da am importance. yow danga am importance sa dund dafa am importance. ngi noonu. huit mille cent ngay def si kilifa nga te nitu diine tiim taat modèle yu yooyu waroo di ko ñawal kenn kii boo ko xoolee xam ne amul kilifa ah. parce que kii boo amul kilifa bisu tabaski Ismaïla nga xamante ni moom la naroon tiim ren ko bàyyam di Ibrahima ñu wàcce xar ma jëlee ko àjjana i Jibril yàlla ni ko boo indiwul xar mi boo ko yóbbul à temps ma génn la ci nguur gi. wuy ma Ibrahima amoon na téer Ismaïla amoon na teer te ku ñaw ku ne ñawlu nga li la soob. so naa dëgg gis nga gii genre yi bu leen di teg sa atelier bi dañuy dàq say client dëgg la man kenn du ma def yobay di ma manqueel. te yaa booy daa bari yàq kañ laay jël si ñaw bi. gannaaw suba jeex na. incha allah ñoo far. ndeysaan jeunesse bi kii rek nga may jox jeunesse bi kii Kumba Gaw la ndeysaan jeunesse bi nii la meloon. xam nga ni lii bu fi fekkoon Maalou Touré doo ko ñaw. tiim taat bisu tabaski nga xam bisu jaamu yàlla lii bu fi fekkoon jaaj joo ko ñaw rawatina sa papa Biram Touré nga xamante ni xeexal na islam guddi xeexal nga bëccëg ba tey ji alhamdulilahi rabbi alamin oculaire ñëpp ngi naan allahu akbar tey amoon looy def lu bisu tabaski nga naan da timta lii du ma fekk sax looy ma xeeb ñoo am témoin nga wut atelier bi ku ma fi gisat ne ma wooye ma atelier bi Sa'ad. aleykum salaam. ça va. muy tur boobu jëlee mbokk jee dama soxor boobu noonu. waaw bii nag moom dafa caaga moom boobu mooy tudd da mar de <laughs> bu gisee kii bii rek day wax. xar nga bëggoon <laughs> ah xar nga bëggoon ah? na nekk kay xar kay mun na nekk <laughs> eh, xar xar bi nga bëgg fi kan bala kay. bala na. waaw xar la kay eh, Balla eh, ah, Gaye eh, moom parti au pouvoir wala opposition. loo xalaat moom la ah, kay. ah kii askan wi Cissé la. waaw ndeysaan. <laughs> na kii mooy nekk sama patron. waaw moom mooy moom kita bi. man dama koy jaayaat rek di ko defal. dig ak di ko xëccal client yi. d'accord waaw dig baax. waaw ah. boobu gaam hey gaam moo dakk xoolal madame ça va. waaw waxaale le waxaale le waxaale le euh, yow ban saaru xar nga bëgg ban façon xar. xar bu mag. waaw xar bu mag kuy. bu am ay béjjén nag teg si. xar bu nganday am béjjén yi nganday. bu la ëpp. ah. wala bu toll ni man. ah ah ah ah. ah, ah. <laughs> ish ish. xar daal yow ponkal nga ci taamu ak yooyu daal laa ci taamu muy mbëkk nag teg ci eh, yow xar mu sa ngay wax de te nag mbëkk bi bu amee daanu sax daf may gën a eh, dégg dégg ah, ah. an ah, yaraan yow xar mu sa de ma ne ko xaaral yow xar mu sa ngay kii xar mu sa yow xar mu sa ngay wër moom rek laa wër <laughs> moom la sentir te doo dem aan ut gaynde parce que fii yow li ngay soxla xar muy matt di mbëkk di gajje ok d'accord ah baax wan ko boobu bala bala kii de moom sarig na moom bala moom sarig na day song day matt day caxabal te jël moom a ci gën a gaaw jël rek bala rek bu lay jàpp jël di am ah nur na ko de waaw bii moom joxul juróom est-ce que dina kan day lay la ñaata defal deux cent bala ñaata fan la fi def. nekkal ah. foofu nekkal foofu di yuut rek bu dee client bu jigéen bu ma am nga yuut rek. waaw baax na amul problème da daan defal 200. léegi dama la koy dugalal par orange ma ne xaaj bi. d'accord naa restant bi après su may ñëw jël si xaaj bi. amul benn problème madame. yow lu jox sa numéro. ok. ah. <laughs> merci. nous sommes efficaces. ok kaay dugal sama kanam ma xool. dina dugg. ah noonu dugalal rek. daa ni c'est de ñëw na. voilà naa jàll. man ngaa def yow sa kër yow kese tabaski mais sa numéro mën naa ko enregistré. bu la neexee. nga ne xaalis bi la ci des may naa la ko. booy dox dox lu ma may sama baay. <laughs> allo <laughs> ah, ngent baa ngi nii Thiès yaatu na. Oh Kaaw. oh kaaw bàyyil bu may wax jigéen kaw nga yuut bàyyil bu jigéen duggee ci gétt gi kaaw nga yuut dinaa la yóbbu hôpital ñu xool ndax amoo sérosique de ah lii lan jox may jox ah, moolu loo muy naan ngay wax cam waaw waaw waaw mais kii du sama copain. waaye xanaa soxna si yow jërëjëf <laughs> Palachi nga dëkkee. ah nee naa la tuxu si bees laa ci koñ bi. seen koñ bi fii laa dëkk. mais xaw ma fi dara nag. saa yu ma génnee nag yow laay taseel. fii moom mm. c'est dans le calme dans l'ambiance. Mm-hmm. la solidarité la symbiosité. macha allah gis naa loolu gis naa loolu waaw wuy ma mbaa keroog gaañoo. non xam nga rek keroog ni mu demee la xam nga ak itamit xam nga xëy war a dem dóor ay affaire mais tey. comme Mamadou Abdoulaye Diop day ngéente waat. ma ni naa fa dem. Mermoz. Mhm. xooli njaboot geeg yooyu. moo tax li nga sañ sa rafet na waa wuy ma. Mhm. xam nga lan laa soxla woon. Mhm. tailleur bi ma daan ñawal chaque année. ren dama ko woo mu bañ. aju. mais heure bi dañuy fees dama saraxu ñaan bay bëgg a dee mi ne mën a tax xam nga foog ma solu tabaski bi. waaw mënul ñàkk moom. ah moom mënul ñàkk moom. léegi nag man comme yow ginnaaw ba chaque jour yow laay dajal xam naa koñ bi moom yaa ko téye sa loxo. dama bëggoon nag soo fi xamee téyër ba nga xam ne mën na ñaw. Hmm. loxoom set na. nga hmm. boole ma moom mu ñawal man ñu dem rek mu jàpp. yow sa aaja fajul. ah dana metti nag. waaye lii may def yaa tax ma di ko def. ndax it nag jar nga ko am naa suma wëllëre bu ne fii mhm. ñaw rek lay def day ñaw tubaab yëre tubaab mhm. di ñaw yëre wa ah. di ñaw yëre góor di ñaw yëre jigéen di ñaw ñaw xale di ñaw ñaw mag di ñaw ñaw meer di ñaw ay ñaw jeune waaw ah, kon baax na jàmbaar fàq tëdd la ñaw set wicc laa bëgg nii may waxee yow mhm. yëre Sonko ma nga fa ma nga ko war a ñaw yëre son excellence Macky Sall ma nga fa ma nga ko war a ñaw te lépp ci sutura. Ah. kaa ñu dem ma boole laag moom. waaw wuy ma xam la laa bëgg a xam moom day jaay ci tissu wala du jaay tissu ma woo ki may jaay lépp lay def kaa ñu dem. kon jarul may jënd dama doon dem mais dama koy damay waneeku ñu dem dugalal ñu sa <laughs> ay jibi kii su man dama gëj dund amour. <laughs> amour dama ba mu ñawal ma rek. non kii sama xarit nga nekk suma wëllëre bu yàgg naam tabaski bi xat na waaye xajal ko ci ndax na bi mu fi tuuxusee yàggul te wax dëgg ne xaram maa fi papaam di yaayam ma bëggoon nga ñawal ko rek ñawal ko lu toog ci tabaski bi mm-hmm. ndax it nag sama wëllëre la sëy loolu ba mu ko vocaloon sax ma def ko ndeysaan kii atelier ba ma koy inauguré tudde ko sama maam Penda ndeysaan ki ñu lay wax nii moo njëkk a ci àdduna ni mayonnaise dañ koy raax ci tool. sama maam mu njëkk def loolu penda léegi nag atelier bi nag ma transformé ko def ko penda shop moom mi moo ñëwoon inauguré moo daggoon drapeau vert ci rouge bi xëcc morso bi ñu liir penda shop boobu ñu jooy bari nan ñu jooy bari léegi nag kon tey buy ndee nitam mu xat mu bëgg ñaw ki man mm-hmm. lu mu xat-xat dama ko ciy dugal na temps fait pas xat na gaa waxoon na mu ko léegi ba ñuy daje mm-hmm. ma ko damaa jaaxle mm-hmm. sanc bees laa ci koñ bi dajeeg moom expliqué ko mi ne ma kañ dem ci sama xarit sama wóllëre d'ailleurs mooy ñawal opposition bi ak pouvoir bi defal naa foofu man opposition pouvoir ñëpp laa yemale. dëgg la xam naa rek xol la wax rek. Hmm? waaye man soogaat. magee taxaw tem ba léegi mi ngi koy ñaw li ko yónnee États-Unis moom. ji bi fi amul ah, kay. waaw léegi nag euh, euh, na sa xel dal. Hmm. Hmm. toute façon. dinaa la dugal ñawal la. lépp lépp tissu bi. tay baas bu ndaw laa bëggoon. waaw tokk tay baas. wuy ma. mais day sexy. Eh, day sexy waaye bu mu vulgaire. waaw waaw loolu laa wax. sexy vulgaire bokkul tay baas sexy ah. moom day tëddi. Ah. vulgaire mooy xëy ngoon si fanaan ba fajar. Ah, sexy mooy matinal bi. léegi amul problème. am lii laa bëgg non dama dem bay jënd jesner moom moo ma ni fii day jaay. ay jës ne fii lépp la ñuy def. waaw léegi sëy jox ma bu meuf bi may seen ma xool. waaw meuf bi lii rafet na de. bii rafetul. meuf bii jël na couleur parti jàmbur de. parti man da man lu neutre laa bëgg de. non couleur meuf bii Ndella Madior Diouf couleur partem la. déedéet xoolal. moo xool vert bi. xoolal bi bii rafet na de jëf vert. waaw. weer bi moom pas socialiste la da ngay socialiste moom normalement. waaw kon bàyyi ma neutre bàyyi ma jël moof bi moof bi kenn moomu ko. non moof bi kii moo ko est-ce que du sarax tam. déedéet déedéet déedéet kii moo ko moom euh, waaye femme bi waaye Ndella Madior. ah couleur moof la. ah eh, beaucoup de cœur. <laughs> mais tey ngaa bu orange. Ah, ah blanc baax na blanc baax na. c'est que parti yi ñoo bare. parti yi bare. xoolal léegi jëlal ma blanc. jeex na waaw jeex na dégg nga jeex na ah. bu ah, moom xam naa di ci xaj. parti mi El Hadj Diouf la mais dafa mujj changé couleur da ko tuub. man daal naa neutre rek bàyyi ma jël blanc. léegi boo xoolee tissu bi. ak ñaw bi ak ji bi mi fi indi ak yow baax gi ma gis ci yow. xam nga nit bu baaxee da nga koy gis ci regaaru kanam. <laughs> Mm-hmm. xam naa ne ku am kilifa waaw ku baax responsable. ku baax léegi nag lépp dama koy def soixante quinze mille. ñaw bi vingt cinq mille ah, <laughs> jasi neex na di. Ah, jar na moom. kan aw ma lu muy wax. te léegi ah, moment laa ah, andi. sant yàlla baax na sant yàlla léegi xam na lan la ñuy def. man dinaa la boole ji bi mu jox la amul benn problème. Mhm. léegi mesure yi tamit naa ko envoyé ji mu envoyé la ko. Mhm. Mhm. man de toute façon. man modèle man man danaa ci def sama participation. man ci ñaw bi. ji bi rek ah. doy na li nga def rek doy na maa la ko wax. Ah. demal ci jàmm xam sa ñaw dina la fekk sa kër ci jàmm ak sa. mi ngi noonu li nga ci xam day def livraison à ah. domicile. à domicile waaw maa koy indi waaw. waaw depuis. depuis. Eh. waaw dem naa. t'en fais pas ils arrivent. ok ko gis nii. dana dégg ndokkale de. kan kii. Hmm? dana yàlla moo tëdd sama yéene ci moom la sëy. Hmm. xale bi jekk na de. kii. moom nga bëti. xool nga bëti macha allah bëtu katu rek la ma jox. bëtu katu chat teg teg teg teg kay. mbaa du ñu ne. non def katu chat nga bëti macha allah dafa defoon taaf. xale bët yi def teef mu nekk teey teey. léegi nag léegi nag boobu ma ko. du ma yow la nga jàppee sa bopp. yow da nga yaakaar yaay ba lu ñëw rek nga dugal ci kaa yi. <laughs> demeewul yow doo karambu xale bi teg naa ci loxo. non doo tee sëy amoo liggéey. lii di nga ko araam fa tey. amoo liggéey. waaye léegi aw ma liggéey. amoo casier du serre amoo extrait de naissance. ba la sëy amooy këyit. ah ba ci la mariage jàkka jës dañuy laaj sa carte d'identité. waaye yow kër dafa laaj loolu yëpp. ah waaw baax bëggee dafa laaj loolu yëpp. na kii bëgg naa ko mu bëgg ma nga bëgg a fokk sama loxo munoo ko yor de munoo ko yor de bu dee ku woddu nga yaakaar yow la woddu danaa leer yaa ngi faju wéeragoo ki la téegal rek dama téegal yaa ngi faju wéeragoo yaa ngi faju wéeragoo waaw baax na waaw ah, jibi mm-hmm. ah de gis naa changement sañoo bi de ah, xanaa Tafa lay ñëwal fan yi Tafa man. lii la Barham création moo créé. sama koñ golf. Ah. ci wetu police ba. fa di def xale bu ndaw. bu doon Tafa moo ñëw lii. heure bi pokotaan yi lii. ci suuf bërki dem benn américain la fa ñëwal. xeex ba mel ni tulleeg maa lay waaj a génne mitrailleur. heureusement dama def formation bambu. waa ji dafa dóor ratatata foo toll dégg mu nuur ci suufu sees ci suuf atelier ci biir atelier bi. ci biir atelier bi. fa la indi maîtrise. fa la indi maîtrise mu xool douze sept la teg maa kenn gaañoo fa rek. non heureusement. waa ji àll bëgg la doon dóor naan what film nga dégg taw caaw bisi ak taaw tafa di naaw xoolal ma maa mujj capté niroog moom ci suufu sees apprenti ba moom it génn ci attiré ma xëccaat ko dugalaat ko américain bi teg affaire na am sama xel. Ndiol tey naanoo xeme. Euh? ma ne tey naanoo xeme xeme. kenn mayu la chaîne tamit. loolu hmm. lay expliqué di affaire bi demee quoi xam nga waaj bi mu jege mitrailleur bi visé wul Tafa quoi dafa raaf rek quoi. ni war ta foog affaire bi ànd ak musique nag. ba pare waaye avant muy dóorlu dugal musique bi affaire naan caaw ma dégg tan tan tan ah. naa jox xar. waaw ah. xar jarul yenn yi hmm. xaru tabaski dafa war a lew. d'accord ci xaalis wala ci hmm. ci waxin. mais bul wax loo xamante ni c'est diabolique wala c'est indispensable. d'accord d'accord mais wuy ma. sama xam bi boo génnee fii nga simi ko. mu mhm. wut may lus. tissu bi moo tudd vaseline. vaseline vaseline lii. salaamaaleykum. xaaral ma bëggoon salaamaaleykum wa rahmatulah. ça va. waaleykum salaam. ça va ah, waay di baax. ça va. mën ah, baax na. xoolal dimbali ma waay mën naa dem gétt ga xool. kaw ça va na nga def man maa fi nekkoon damay bougé ñëw pour soo wax soxla baax. kon baax na ça va non garaawul. toogal toogal mun na fekk wax. Ah. bi waaw kaay nii ko non garaawul may may toog. loolu yéen ñi baaxul quoi. Hmm? ma ne yéen yi baaxul. non affaire bi noonu la demee. dama am kersa bi ngay nettali sa dama am kersa dama rus. non mais eh. dama affaire noonu la demee. buy ma affaire bi la demee affaire bi noonu fekkoon asilaay sax. amoon naa dix copains fen moo tax ma bàyyi ñëpp. ah man li may am naa ci vidéo de boo bëggee moom la. gannaaw. waaye ba Kaaw naa ko. sa kanam gi gis na de saa lu xew. dafa génn àdduna dem na dem na. ndeysaan kan kaaw eh, waaw waaw déglu ma déglu ma. dem na te du kulli nafsin saaxatin mawti. yaa ngi dégg bakkan bu ñam dana ñam dee. te lépp loo gis am na àppam. kaaw ah déglu kii lim lay wax ku fi yàlla jëlee. ak nu la fi jëlee. Mhm. duñ ci mer. duñ ci xataraayo ndax yàlla du def lu ñu merloo ñun lu def ànd nañ ci moom mu def moo gën man gëm naa yàlla de du ma jooy hmm. waaw kon kay jarul yenn ah. li ngay def man de xaw ma loo bokk ak moom de waaye man bu doon mën a bu ma doon yow nga mun ndax yow góor nga defuma mii noonu bugguma bu ma gisee lu nekk lay def ndax man lu nekk lay def ndax sa jooy set na tam yàlla du yërëm ko xaw ma kan la waaye façon jooy bi ngay jooy xanaa xam nga jooy yërmande dafa am bu nit génnee àdduna dafa am jooy yoo koy jooy ñu jégal ko nga am jooy yooyu jooy ñu mbëggal ko sa jooy yii sa jooy yi ñorul. waaw bu ah. moo demoon booy neex. waaw. buum bi def tuuf. Ah. loolu day am ci concert yëpp. bilaay yi bëri na concert yoo xam ne xalam yi. guitare yi batterie yi dañuy faq tama yi faq. Hmm? loolu mënul ñàkk. daloon na Bob Seen à l'époque. dëgg Seen men bu jamono super jamono. naan daan daan daan daan daan daan boobu nag moo la tis yow baax tis boobu moo la tis rek mu laal. lu def. sama sama kar kar bi ñu tuddi woon Balla Gaye moo génn àdduna Ahmed Fall Ndiaw Sir alhamdulilah rabbil ay bu nekkoon sama xar tey fu ma koy waxe yow yow yaa gàtt xel te te dof. ci la. yow sa intérêt rek ngay xool. ban intérêt. boobu jaay nañ ko boo pare. lan boobu jaay nañ ko boo pare loolu mooy mooy lakkar bu pare dafa lekk mbuus. waaw ma ne ko bu bu dafa njëkk a lekk waaw ma ne ko hey. bu lekkati mbuus bi. waaw ah mu tegaat mu mu mu dawaat lekkaat mbuus. nga da koy wax dama bi rek ñëw fekkal lekk na mbuus. mujj gi dama ko rey. loolu yomb na de. Ah. bu mu nekkee si digg sukuraat bi. laay rey ko. bàyyi kaaw kaaw ku la reyloo sama xar. kaaw xar mi deewul ki nga samay xar bu lekkoon paanu mbuus duñu dee. dégg nga mënoon ngaa bàyyi xar mi mu tëdd ku la reyloo sama xar kaaw. te ni woon ma jàngal ko loolu nga mooy jekkale nit. bul ko jàngal bul ko. xar mee la ko. Oh, moom moo waxoon toll ma ne ko. ana ana bi. mu ngi ma teg fóole ne leen. teg dénk naa ko dibi téere bii de. Eh, yow kaaw xaru tabaski lu muy wuti dibi. rey nañ ko boo pare. lu may def ci dibiteri bi. futti naa mbubu bi boo. ku la ko futti loo. boo pare def naa ko taati neen yow ah. jox naa ko kële. jox naa ko jox naa ko dibiteri bi ba teel léegi yow. yaa yow nga rey xaw xalu jàmbur war ko yóbbu ca consulateur ba. ba borom ñëw nga yóbbu ko ca dir bi xarama kay ñoom mooy ñor na rek. ok Ndiol pardon s'il vous plaît. Kaaw woowal ma sa yaay appel vidéo ma calculer li nga fi am yëpp ma fay la ko nga dem. mbaa sama yaay nekkul fii. baa bàyyil dund sama yaay baa sama yaay nekkul fii baa sa yaay xanaa daa dem Kenya sa yaay mën sa yaay dem Kenya jënd ay mayloos boo bàyyiwul sama yaay rek dinaa ñappal sama waa doomu xaj ka tal sama ka di nga sama xaj ma nga rey sama sama moo la ëpp xaalis boo ndur ak moom tooyaloo xaalis loolu defet la. dëgg la ñoo ma koy waxee dama romb ñëw ne kii dafa ndur ak Wally Seck. what's ma <laughs> oh, <laughs> ma bad. ah du ma sama sama wolof bi leer tuuti parce que dama dama jóge États-Unis and yee si koñ bi noonu. and then dama war a dama war a dem tey. dama bëggoon bàyyi fi suma ñaw bi ba ba dama war a dellusiwaat siwaat euh, fii ak ñaari ñaari bés yee dama bëgg sama yére bi mu pare fii ak euh, may bi tey wala suba den sama doom bi mu gi ñëw indi pièce beeg yooyu noonu den dama ñëwoon pour waxtaan si price beeg price beeg yooyu noonu xool itam ndax dina mën a nekk fii ak euh, suba mu pare. ah loolu loolu loolu amul benn problème. fii ñun. loolu wóor ñuy liggéey caag caag. mën na pare fii ak tomorrow wala. tay si amul lan ngay ñawlu. yeah ba it's it's uh, mbax. Ah, pip. yeah yeah yeah mbax pip su ma amee loolu tam baax na. yeah ba dafay wàcc bët suuf and loxo bi tamit dafay jot. yeah bu mu xat noonu na. non non américain yi kay yu ngande lañu sol. américain kay ak yére moom yàgg naa ngande. ma mën ngeen ma wax ñaata la ma. xaalis mooy mooy price ñaata la. waaw mboq bi moom 15 bi rek. 20 euh, hundred 150 mille. oh da loxo wàññil daf nit nekk loolu sax. Ah. sama doom bi dina jaar fii léegi léegi. Ah. man dama xaw a yaakamti cause dama am yee match basketball. ah ngay basket. yee yee am basketball. xam nga góor gi si de. mu ni góor yi temps booyam. kon nag kanam bu indil trop sax jaamu yow parce que défenseur ngay football wala am yee ah, maa ngi nekk si middle bi. si middle maa ngi nekk si middle bi. and then pivot xam nga lu ñuy wax pivot. ba <laughs> ma dama xaw a yaakamti <laughs> anyway parce que kat da ngeen bari te neexu leen xam ne ñëppay dawandoo. parce que moom dafa compliqué. patron. am sikku aan sellayn hormande poɗɗannoyɗo ko fan cafreɗa yokkide xolaye eh, dama lay saaga ndey de boo ma waxatee cofere te léegi ma cofere seen waa famille. waaw. waaw. waaw ah, kii fu mu dem. daal moo tax Sénégal utal fi nit liggéey problème la. maa gétt ko toll nii ay millions am nekk fi kaaw na wëriñ xaw ma jigéen la wëri xaw ma fu mu dem na fi ñu ko wàcc fi xari kese waaye baax na man la fi fekk. sama man damaa fay sama canal benn yoon tax mu noppal ma abonnement canal ma ne ko ma fayal sama abonnement canal benn yoon daal di féex <laughs> eh, neexul ba neexul waaye orange billaay orange du kew orange du limon orange du kaani orange du danku Dakar orange duñ kenn xoolal rek fay sa fay sa fi nga taxaw sans stress sans frais orange rek ko man tey maa yërëm ndoxum sëti <laughs> lay lay la gaaw eh. tey moom sama yaram bii neexul tey tey baax man xawma am na loo mu tegaloon fii lan mbuus bi nga ma tegaloon fii. waaw nga wax ma ne ma mu ngi noonu rek. waaw man daal jël naa ko ma dem jëndi meew ma jaxase ma lekk si bo sama biir bii kii tey mooy cinq mooy cinq sama butit yi dégg na. Eh, eh. yow mbuus bu ruus bi ma tegoon fii. waaw moom nga jël boole koog meew lekk. waa kaw demal hôpital. lan la demal hôpital. aba ripaas la. woy sama ndey. yow boo lekk boo laajte. Ah, eh, lu ma si xam jëlal satala nga dem hôpital. waay waay waay ah, sama biir bi. ñëw ñëw ñëw baax dee. Eh, déedéet baax damay yàq sama bul dugat bul dugat déedéet waaw waaw waaw eh, yàq yàq naa sama tubaay bi. yaaw yaaw yaaw yaaw yaaw yaaw yaaw yaaw ay waay ren yàlla na sama xarit jar ah, ripaas ay waay kaw lu ko boole ak ripaas ba mu koy lekk waaw ban docteur ma fa war a faj ripaas sax qui passe dans l'aventure kan moo ko war a mën a faj fii docteur Dieye docteur Dieye xale bi de mu fi indi salaire salaire ni ma euh, kii kon facture facture TikTok. facture TikTok li may sa facture TikTok bi daa cher tey. salaamaaleykum. kon nag xale bi door na ba waaleykum salaam. maa ngi def. ça va. Euh, yaay patron place bi. patron. ah yaay patron bi. ah laa waaye wax dëgg yàlla xaw bi ci bi ci rax laa xam xaw kan la. man man la bàyyi defal yàlla. bàyyi defal yàlla nekk nii. waaw moom Mamadou Abdoulaye Diop bokk ko. ndeysaan garab de garab yëpp moo ko taayee sa koñ ba te ah, dañuy defal yàlla rek mais tey euh, xam dañuy dox ci social. Mm-hmm. donc tabaski bi dama amoon ay orphelin yu ma bëggoon defal ñaw. mooy xale yi nga xam ne seen waajur dañ teel a dem. ah njëriñ mi. voilà. ndeysaan. voilà léegi dama soxloon vingt commandes euh, pour xale euh, ndax di ko mën a jël ci tabaski bi oui ou non. ñooñu bu ñooñu ñooñu bu nu fekkoon ma fee sax dinaa am yi ñoo xam ne dama leen delloo seen yo bos jël bësu xale yooyu. parce que xale yooyu moom lu leen waay defal sa borom nga ko defal orphelin yi. après naa la envoyé mesure par WhatsApp. am nga WhatsApp. Mhm. d'accord. léegi moo doon xam ñaata la nga facturé ma wax ma lépp loo wax rek dinaa la fay. waroon nañ njëkk ci ñun de. ndax sama ah. yére baa ngi eh, la yàlla yàlla bu ma jër ngeen. dëgg la offre bu ma jër ngeen. dëgg la mi ngi noonu léegi. Hmm. ma xool léegi daal bu dee ay xaftaan lañu ñu bëgg ah. Hmm. yére julli moom xaftaan moo ci gën ci xale. dëgg la hmm. waaw léegi daal dinaa la ko defal entre vingt yi. mais bàyyi ma def ko cent mille. cent mille waaw li si des dama ko participer nag c'est offre yi xale yi d' accord man je ay modèles yu rafet laa bëgg am ah, terminé am lépp ah. non. offre ren dañuy am seen modèle bopp ba nga xam ni ñii. Amidou ak ñi ca topp ca kër. Mhm. doomi Macky Sall yii. Mhm. ak tata Marème Faye kii moo leen di ñëwal tabaski bu jëm. bu Amadou Amadou lu ma ko ñawal def naa ci roof. léegi am nga orange money. yow orange money ñëpp ñoo am. ko sax nit ñi ñoo lay xoolee bët kee amul orange money. <laughs> mais seen dëkk bi tàng naa. ah waaw ah, c'est oh, chaud. pétrole bi la ah, pétrole la. Ah. pétrole bee génn. d'accord pétrole bee génn. moo tax mu tàng ak gaz bi. waaye nag li nga sol day xëcc tàngoor. bon yére yi moom xaw ma ci dara dañ may ñëw rek jox ma. <laughs> c'est ça moom tamit ak orphelin yi. amatuñu xol. waaw seen xol yëpp orphelin yi ko. dëgg la am na dafa jeex ba pare sax def lu baax rek a fi xaj. léegi dama ci dolli cinquante mille kii normalement cinquante mille dina ko ñawal. waaw voilà. Euh, tissu euh, euh, kii bi ni ko fi ni ko fi ñukk bi laa koy ñawal. <laughs> d'accord jot nga message. waaw jot naa ko wàcc. d'accord yokk leen ñaan rek. jërëjëf dinañ gën a ñaan ñu lay encouragé. man na aw ma lu ma la fay. Hmm. waaye dama lay war rek ni la ci si orphelin bu mag a nekk nii. waaw sëy. Oh, dimbali ko ngir yàlla baal ma ko baal ma ko déedéet baal ma ko. xam nga exemple orphelin yi la. dëgg la boo waree seen jur xale yi màgg dañuy yaakaar ni. dëgg la waaye man kaka waaw man maa ngi dem merci. waaw kontaan nañ ci yow bi naka la. waaw Moustapha. waaw jërëjëf à la prochaine. yàlla na yàlla fay. loo defal dama wan la samay cus rek de. waaw waay sëy waay cus. waaw xool xool bu sedd rek. bu paree yaa ngi faj wéeru su may fukki junni. ban cinquante mille laa la ta lu ma benn problème cinquante mille yi ma waaj a jox ñawlu ma tey ñawlu mu suba ñawloo ma tey ñawloo ma ni ko fi ñukk bi laa lay naka yow nga sol ko. ñawal la ci ma eh. ñaw ma de ñaw ma de. jox ma sama xaalis. ban xaalis la rek cinquante mille yi ma koy. yow Sadiko sax. dama ne amul. jox ma samay fukki junni dama ko soxla. yow ban fukki junni la. ma samay fukki junni. ngay naaw naaw. ma sama xaalis nga la waaye. sama biir attiré waaye ba ci la. yow mën nga sax yow mën nga sax. wala sama loxo ba dam na. dof dof la de. man ma sama nday ay waay sa sa tool ma damm sama wax waay. ah sa sa tool. doo am dara certificat médical repos 21 ay waay. That was good. Right. mu ngi baax. waaw ñu ngi sant bu baax. naka naka bi. mu ngi yóbba naa ça va mi ngi yóbba naa xanaa da nga doon tux. ah da ngeen di tux yéen. ñun. Amérique. naa naa duñ tux noonu suñu waa nga ne xaw ñëwee doole. sama sama bagage bi laa jël si boobu. Oh, yow mi yaa war a yaru yow. loo koy menacé. wax naa la ñii doomi Amérique yii. ak doom yi bitim réew yi dañoo relax yéen ñi yéen xëy suba di mer ndax mu ak ñii ay hamburger la ñuy lekk. yaa ngi ci vacances. sama sama jox leen ma. yaa ngi nii bëgg beñe. jox ko yére boobu. di ngi noonu. ma ko biir. ñaw bi kontaan nañ ci. ñaw na mun naa am fu ma dugg pour sol. dana ko fii ah. yow baal ma dem si ginnaaw fii. non non ay yow soo nga nom. natu ko xam naa lu ngeen ma ñawal baax na. non. ñun kay ñaw. it's beautiful. yow ba fi Obama ñëwee ñëwoon na ba sunu place bi visité. maa ne que bul publier loolu du ko dugal sa waaw. taxaw gis nga. waaw kay. seen drapeau xam nga dafa am rouge. Amérique. Amérique. c'est <laughs> anyway. ah am France la waaw kay waaw kay voilà kii ñor. kaay kaay kaay laa demewul nii dafa nànk de installé goo ko de waaw kay. kaay kaay kaay kaay dafa nànk ma woon ko caay ji nu mu koy kiwee lii. may ma may ma ma yeggale lii may def. kaay li ma leen laaj solo lii. du yoroon ndey xarit Diaby. léegi yow li moo nekk mbaq piib lii du mbaq piib déglul rek. boo ko defee nii dem Europe. dafa fi mu toll tubaab gépp lay topp. nga ñu may ma ma daaneel lii. yow de yaa ngi takk sama tubaab bi dañuy kontaan dañuy yaakaar lu bari nga yor nga mën a liggéey ku la gis topp la ana yére bi xam nga lay wax déggoo lii moo nekk yére bi am gis ma sa yére lii moo nekk sama yére bi ngeen naan waaye defal nànk moom la état lii moom laa leen wax waaye defal nànk ma présenté le modèle bi non non pas de non calme calme non mais non état yi ñoo nekk vingt deux état yi ngeen am non yéen ma ñëw fii waxtaan ak yéen ngeen wax ma lu place de l'Obélisque place de l'Obélisque dégg naa a bii moom boo ko boo koy wutal tur bu ci boo wata fokk bokkul mooy baaxul. wata fokk la lii moom mooy sentiment fou. bu fi ñëw yëpp nit weesoo tur nga jaawal nga romb effacé di. seytaane yow. lii ñëw la ma ko fa école. xamalala école nag. teel ma sa man lay la moo tax man ma wax leen li ma lu ma leen wax ma ñëw jël sama yaakaar bi def ko si yéen ngeen dem def ma lu leen neex. da ngeen a foog ni yéen yéen a ma moom. defal naa non mais it's not gonna be easy. no no Tej. yaa si di shit. no no we talk about something like that's oh, the only people to hand tag like people. man what the hell. Tej peace and love peace. I love the coco. You know. Nigga, okay, I'm, I'm, I'm, I'm good. It's a fucking setup. How yeah. Allah, I'm gonna call the police. Yeah. And then you no, no, call police. What is I'm telling you this. Niggas. now niggas, now cop Tijam, Tijam, Tijam, I will lower the cocoa. Tish. You know, someone check out someone here like the whole of your life, like two thousand. I will the cocoa. toj na kaas yëpp jàpp kaas di toj rek kaas di toj ba finalement kaas agité jox nga mel na bébé tamagum jëm nga ku la jox jabar nga fukki doom a ngi nii jàppee ka nii rek waa béti ah min di man de Mori man de boo ko dox dëgg ne xaal ca suba ba léegi maa ma fexe ba jot la yow sa loxo daan dugg bu yàgg tabaski bi fi mu ne ci des bareetul daanaka semaine moo ci des béti déggu ma la gisuma la et puis ma lay woon ñu ama bot bot bot bocal bot bot bot bocal loolu pour lan la déedéet déedéet bul soppeeku na Mendy déedéet béti ñëpp àdduna yëpp xam nañ ni béti Mendy ak Jibi Sey ay caag rek soxla nu ku ne xam na ko sama béti sama njaago loolu ñëpp xam nañ ko ca France ca Lyon ca hmm, nga ni wuyu ma yónnee mu ko ci sama orange mu ne sa bu dee yaa ngi numéro orange ma ko sama orange mu ne dama ko ciy jot wa ilaa bu fekkee amoo numéro orange foofu yónnee ma ko ci Ria wala Tap Tap Send wala Western Union wala wala wala wala kii lu mu tudd Paypal dama koy jot ci sama orange mu ne mën naa ko ciy récupérer ah <laughs> déedéet déedéet déedéet ali bi amatul <laughs> prétexte amatul <laughs> orange orange mu ne réglé na problème bi partout dans le monde jërëjëf Mendy kii dafa baax. dama compal bu ñu la compalee. fóonal sax du ma la ko def. fóonal oh, ma la kan su ma naree yëkkati fukki dërëm ci lii ñu may yónnee jox la ko yow. boo naanatee te attaque nan ma woowee Anta Ndiémé Rocky kii kii booy géer nga doo géwal. sama attaque rek woowee ma bànneex. <laughs> ndaw tur bu sexy. jaajëf. man de yow waaju baax bu la amul woon. Ah. xaw ma fu mu jëm xar yi léegi da ngay ñëw ni bonjour xar yi xar yi fay la xoolal. Eh, bonjour bonjour bonjour xoolal xar yi. Eh! Eh, du ngeen fay nuyoo. <laughs> xool kii fay na. waaw fay na waaw. mais tax xar yi su ma ñëwee du ñu jóg taxaw. ah pour ñu demee euh, je m'enlève. waaw ah je m'assieds. c'est vrai dinaa leen jàngale moom. defaral ataay defaral ataay defaral ataay. xam nga lan la nax bu baax yow sooy fekka ma may jàpp sama lees rek ngay yàqal sama lees. heure bi naa fekk mu teg boo demee gétu abukan bii abukan. waaw abukan waaw eh bergerie Galeya Galeya borom xar yu yomb yooyu. waaw xar la yor mais dara day teg ataay teg lépp. abukan laa gis mu jaay la xar may la saako pomme de soble. jox la dix mille francs ak dawli gole yaa mooy def loolu. dawli même kii da nga xamul sax yow sa bës amul fii fecc amul dara abukan am na Baaba Maal yooyu def Baaba Maal yi wango yu neex mooy am foofu si Belgique. waaw bi demal nga réglé ko. man munu ma ko réglé de baax dama sonn baax. jugal boo léegi maa ngi wax ak xar yi. jugal yow dafa mën a liggéeyoo jugal. liggéeyuma man su ma liggéeyuma gis nga li ma def si kar yëpp nga ne liggéeyuma. kaaw et man na kaaw xamul tax looy booy jóg di waat ñi ak ak kii nii lan la. doo mën ko toog ci col force. ah est que amul sciatique. mu di yàq si aise yi rek ngay mun yàq sama aise rek ngay def. waaw par avec ça nga ne nga naan sën nga. booy jóg di jàpp na nga ne sën. man may entraîné si. ko si taala ngay wax Africa fitness laay naka ngay wax. jugal fii ak sa taat yu rëy kii jëndee ko kuus. day puub rek. caaji ma ne butoolu siro baax njool tuuti hmm? ma ne nga puus tuuti dama yor xaalis jamono bi neexul façon tafu bu ne la nit ñi tafu léegi puusal tuuti ku yor 1000 francs xeebu leen ku ko yor 500 xeebu leen événement bi jub si waxal li nga xamee sàcc xamee ma la sàcc waaye waxal rek wóolu ma kenn d'accord euh, léegi baax j'ai information cruciale bu ma lay jox. Tapha Touré. léegi ñawatul. ah lu muy def léegi. da koy vocal sa ñaw mu envoyé ko ordinateur bi ordinateur bi liggéey ko hmm. da ngay toog a déglu teel ndaka daa mi ne ba pare na. moom xanaa lay. Balla Gaye ak Sa Thiès guddi gu ne fa la ñu toog di waxtaan. Hmm? waaw waaw. Tapha léegi day toog ñooñu di ko waxtaanal. di nga kii ba pare man li ma ci gën a yëm apprenti ba apprenti ba bërki démb laa ñëw mu nuyoo ma cinquante mille. waaw mais loolu la moo waral loolu. ah man xaw ma. loolu bu gaaw boobu nag lan la. boo bëggee dégg dëgg na ci ay saltige yuy ñëw foofu. Hmm. te de fan yee passé dégg naa dem na Zimbabwe jaay benn baaraamam. Zimbabwe la dem. jaay benn baaraamam quatorze millions. ba pare may leen ay we mais dama lay wax benn affaire gis nga boo jógul ci sa gétti gii ci wàllu mystique dootoo ko defati. waaye itam bul ma seetaan bul ma bàyyi nii may dem. Ah, man wax naa li ma lay wax. koo ma booleel. dama bëgg nga gëlëmal ma tafaa. Hmm. mu jowaat le ñaw jabaru Sonko ak ñaw jabaru Macky Sall. jël ñaw jabaru Sonko yóbbul ko Marème Faye Sall jël jël jabaru Marème Faye Sall. taay fii taay baas nga wax noonu. problème bu ngi loolu nag moom. na ko jaxase rek. loolu waxuma sa tëggum bool. <laughs> waaye ci la kaddir yu mag yi di génn. ci ni. loolu ci la faafaare di génn loolu leget yi ci lay tojee loolu moom ku du ci war ci lay réeree moom jërëjëf mi ngi noonu kon kontaan naa bis bu Tafa jaawalee ñawu Sonko ak ñaw ñawu soxna Mariam problème ngay indi de naan de doo naan lowol doon naan deuxième yow moo tax Tafa léegi su ma ko nuyu mu may fay comme benn baa dem. Ah. benn baa dem. moo tax buy wàññi ba 5 nii lay def day retourné waaw waaw day bañ 1 2 3 4 dafa dugg. rek rek nii la nii ah, ah rek bu la fa dem. eh ana ana ana warga bi. usines yi ñoo gréew. usines yan. usines warga yi ñoo gréew. usines warga gréew. ñoo ngi marsa noonu. chinois bu gréew. ñoo ngi marsa ngay wax. bi ma la yónnee ngay raam raamal laa xam ne noonu fi andi dara. Ndiol merci mën ngaa dem. da nga dimbali ma te ci ñu ñaanal ma sëriñ si nañ ma ñaanal. na sa xor seet. utal culotté loxo yi rek. comme ni ma la ngay defal kilo rek. yow Touré may sa bàyyiwul boppam. saltige yi bu ñu génnee mm. déggoo ma de saltige yi dañuy génn waa Fuuta yi dugg waa Fuuta yi génn. waa Casamance yegg si waa Casamance génn waa Kolda dugg waa Kolda génn waa Mali ñëw waa Mali dem waa Guinée ñëw waa Mauritanie waa Tanzanie waa Sabara Zeyna waa marché cëb-cëb ñëpp ca biir atelier ba te atelier ba 4 6 mètres carrés ay tey ma dee. jibi boo jugul woon rek mooy ñokkal atal ah. lu la dal da ngaa feebar xanaa. kii dafa mën a feebar yow da ngaa feebar. ah mooy fen ma toog di ko déglu rek. Tanzanie Burkina Faso Banjul Guinée Bissau Conakry Sefato daa am paas boobu. da ngaa mun a daa am boobu paas. da ngaa mun a encaissé rek yow itam lu ñëw nga encaissé. waaw sama noppi ni mu tooyee ndax ay wax rek. yow yaa xam tuf li nga ma ba ma tooyee. yaa xam man fi ne si nopp bi pour mu dégg sax fi mu nekk nii il faut may def nii. soo moytuwul tafaa mu li toppa tafaa si sa noppa yi rek dina la jaxase ak tafaa kii ma gis nii toppal fer ngay mel ni endo bu perte nii. eh comme ataay andul amul. mu war a ay dañoo gërëm. dama uti kénkeri ba ku koy def yàlla na dee mënu ma Sora. ay waay. ay waay. Sora. wuyaay. ku yàqu sama vélo. allo. c'est qui dans l'appareil. ça eh. va c'est Naya. ma cliente préférée ça va très bien. ça et toi. et de fête de Tabaski là tout va bien. ça man de damaa bëggoon koy xam nga ci. waaw dama bëggoon nga ma benn bu koyof xaw a sikk si nii rek ba nga ma tabax lakkee ko yàq. naa man fees naa de dëgg dama la ko ñaan rek Touré lii moom boo ci jàpp rek yow laa ci wóoru. ndax jeex. na amul problème loo bëgg ñawlu foofu. ah tinu keppal ma bu kii rek. waaw baax na amul problème. jeex na jeex na ma ne moo doon yàpp yaa tuuti tuuti ngeen lekk fokkale moo tax benn xaal bii dee. maaleykum salaam. ça va. wari de wari. ça va. na nga def. ça va bien. les affaires ça marche. alhamdulilah. ça va na nga def. mootul jóg kii xar boobu. waaw biir bi mooy daw. ça va. ça va. na nga def. ça va depuis hmm. hmm. nga ko amee gisuma ko fi. waaw loolu laal doon bugg a wax wax dëgg yàlla Sakar wuy na boromam Sakar dafa wuy boromam wuy jina boromam. li nga wax dégguma faat wuy jina boromam. sama xar man. dafa lekk fi mbuus ñu yóbbu ko vétérinaire ñu perfuser na ko far yàlla mu jaare noonu wuy boromam. yeggaguñ foofu man sama xar boobu mooy jullee sama xar tabaski. waaw dañ koy waxtaane rek. du ñuy waxtaane amu fi amu fi de. sama xar moom laay jullee. Eh, kon xar yi ñëw. xaaral borom xar yi ñëw ko sama xar. xaaral borom ma ah, def. waaw oh, ari de. tàngoor lay def. wax la kii. waaw Kaaw sigil ndigaale. Ah, waaw yàlla la moom lu mu mujjee yow. bilaay noonu xëy. ñu ko rawee kay yooyu sama xar moom laa jël si. te du ma génn fii kër gi du ma fi génn te sama xar yóbbaale wu ma ko te ngaa xool si yàlla nga xool si lii kii li ko daal moo ko a naqari. maa yow kii laay wax sama xar laa wax. Eh, Massa Massa yéen jarul yéen ñi ah, la waa garaaw sama xar du ma du ma bougé fii te buuma ko mënul nekk. naqar bi ñëpp la topp yow da xar bu sadik nga bëggoon xar bu sadik buy mbëkk di gaañe yu ko gën a sadik nga fi giri bordo daa gën a sadik Balla Gaye Balla Gaye jëlal giri. man bi ma bëgg. moom laay yóbbu te moom laay jullee. Eh, soxna si nag eh, kaay mu wax la nag yow li nga bugg. amul sa yoon nekk si wax ci. waaw noppi léegi. ma am na xar ma xar mi yaa maa la ko jaay woon deux cent mille nga avance ma cent mille desel ma cent mille léegi li nga ma desel jox ma quarante mille ma jox la beneen xar man jaral na ma sama perte amul problème. xanaa keroog da nga fàtte. ñaam fàtte la ñaame ñaame. ba nga ma naan may nga ma desit. lakkale may naa la soo bëggee ma jël xar. waaw ah. du ma fay desit de. yow yow mayoo ma néew bi ma lay may xar muy dund yow xanaa man damaa dof. yeggaguñ foofu. xam nga lu ma la bëgg xamal. xar ma dem na. tànnal ci xar yi benn xar ma wàññi prix bi nga yóbbu sa xar. waaw baax na. d'accord envoyé ma samay 40 te nga tànn ci def fere yi na si biir defal fere yi. yow fere yi du Papa Ndiaye di. waaw defal na coow. waaw defal fere zéro virgule huit dong la pour cent. waaw yow frais du frais dara. waaye dina ko waaye orange dafa dafa bokk ak ndoxum siti. ah waaw ba tey waaye na def frais rek. xoolal ndax message bi ñëw na. quarante quarante mille la ñëw na. sama xar. tànnal bu la neex. bii laa jël. boo ko jël yal naa dee. parce que eh, xoolal. jëlal nga xool barke doo jël bii barke doo jël bii doo jël bii jox ala la la. bii dafa am doo jël bii wóor na yàlla. boo jël gis nga boo daf daf loo. <laughs> sama jikko nga bëgg a jot bii laay jël. bii laay jox ko yóbbu. waaw boobu baax na soo ko tabaskee ma tabaskee ma moomu ko man nga tabaskee ma man moomu ko. bàyyi xam ne ngay tekki nga tekki bële. boo ma woo nga tey ma wong solo bon dama la koy def ba fukki yoon ak juróom foo ma woo ma wuyu la. Eh, sama eh, xar laa eh, ko tey yow nag kii soxlawul xar de <laughs> yow man nga soxla soxlawoo xar de soxlawoo xar. loolu mooy bësit loolu naa mel ni loolu naa mel ni. wax jaa ngi bëgg a bëri di nga jot sama ci ko de dama ne nga tekki xar bi laa wax tekkiwu kaw kaay. ah addu sawru. addu ko jiitu ko haaɗi leena ko waa tey du peuple <laughs> ça va ci jàmm Naya ci loo ne xoolal muut kii beñe la hmm? déggal kii naan beñe 300 ah, <laughs> wuy ma sama ñaw bi ma la doon wax léegi. Mm. li ma fi andi lu ma lakkee yàpp daal laa bëgg. Mm. du ma fi yàgg nag Tafa ñawal ma ñaw bu baax rek tarafet rafet. dégg nga naa ñaw tunique boo xam ni. Mm. tunique bu sexy lay doon. day day sàcc robe keppal ma. am ay poche. Mm-hmm. ay vingt poche. ba pare am ay buton multicouleur waaw non day six foofu bàkkal sexualité rek oh, dama ne boo jógee capitale dem région julli ji sexualité donc mu mën a indaale waa région bi xam ni ñëw ko mën a incarné Badou man de damay tent sama face yi yóbbu ko région yéey capitale boo ñëw da ngay ñëw riga lii daal mi ngi noonu <laughs> léegi nag xam ne ñuy def danga may dugalal fii lu ma jënde wëñ renfort ak ay quelques boutons accessoires ñoom soo fekk nga mën ka teel man ñaata yoon laa dugg ci sa atelier est-ce que maag yow mus nañ jokkalante ay joxe xaalis ak nangu. déedéet. musul am man xoolal du ma doxaale xaalis instant yi fi may wax ak yow ni yoruma dara. sama téléphone rek laa fi yow pardon pardon yow doo doxaale xaalis. léegi la nga def ba jënd li brioche doore ah, laa dem ah. paiement marchand laa fayee jeex na. ma yor sama euh, sachet dem sama yoon man du ma dox xaalis de man sama xaalis yëpp sama compte orange ne laa koy def su ma demee fu may dem su amee paiement marchand ma fayee par euh, paiement marchand su ko amul ma defal la sa transfert léegi yow xam na la ñuy def du ñu jote damay génn léegi dugalal la xaalis nga commencé ñaw bi. dama la koy ñawal la bu sëñ Fall woyoon. ne sama yaay may ma Papa Ndiaye dama koo nopp. xooluma ci <laughs> ñaw boobu. ma sama ma. may ma yaa dama koo sa xol mi. eh sama xol mu doxantu nag. ah waaw <laughs> yéen da ngeen di jàpp xolu jàmm di leen confiné di leen kuur fa rek yéen. patron man depuis sànq ba léegi maa ngi dugal lii boo dugaloo dugal noonu laa def. nekk ay diw dugal di laal sama bàjjen. donc patron. patron. sa téléphone mu ngi sonné de. du sonné. téléphone mu ngi mu ngi sonné de. xam nga kuy woote. sama client la sama client bi nekk fële. ah Côte d'Ivoire Labake. waaw Labake la. Labake la. allo. bonjour Fele Fele. ça va Tafa le grand tailleur. ça va Labake naka mu. Labake Labake. Lamba Kaye ça va tu vas bien. va ça va ça va très bien élève élève votre pays là. waaw waaw waaw ça va ça va on est un va on gère bon dis-moi. c'est mhm. à propos des des habits que j'avais commandé que j'avais commandé là. waaw les habits ma waaw. c'est déjà non tout est fini tout est fini déjà assemblé on a assemblé tout avec tout hein. Ah, on repassait on passe ma def nañ tout hein. bon y a ma sœur qui doit venir. Hmm. Elle va récupérer ça, après elle va m'amener ça. Mais par contre, pour, l'argent que je te dois là, l'argent. l'argent. J'ai fait comment par Orange Money. Non, ça c'est trop cher mon frère. Non. Les frais c'est trop, cher. Non, tu connais pas les infos maintenant, les informations pour au niveau de sous-région là, votre voisin, notre voisin là, Orange Money, il nous propose transfert sans

<laughs> ate Tabaski. D'accord. Je, je, je vais t'envoyer Merci, ouais. <laughs> Allez, merci beaucoup. Allez, bonne fête, porte-toi bien. Merci, merci, kon yow léegi ci sous-région bi sunu voisin yi nga dégg jokkalante bu rafet bi ñuy jokkalante loolu la ne xool ba ni diggante boobu muy sous-région foofu yónnee xaalis amul benn frais doo fay dara xam nga loolu yombal na taxal na digg yi. loolu kay loolu la ñuy wax intégration africaine. intégration africaine la patrimoine Lumumba ci loolu la nekk di ci liggéey. Lumumba boobu dëkkul am. Congo la dëkk ci suuf. da dama ni fépp fu naaj bi di màjj màjjee. Hmm. Afrique. foo gisul nees kay bàyyi mu dem. waaw ku ñëw lii yaa bi. yow lii di mel na maquette Macky Sall bi jam ñaajo bi. Ah, tepp lii xam nga ne borom bu ko gisee du ko neex. bu amul glace doo ko naan bu amul glace doo ko naan. salaamaaleykum. ah hee. maa yi xaj xar yi ngay jox glace. te <laughs> moom dafa réew ana waaju baax. ça va Tafa. ça va. ça baax dafa dugg si douze bi. Ah. waaw lu muy def si douze bi. Ah, am naa est-ce que yóbbuwul xale yi seen kër maam. ah ah leen danaa la ko. Ah. xale yi moom boo leen mënee yóbbu seen kër maam yobbu leen rek. léegi mu ñëw léegi. parce que boo leen yóbbuwul tamit seen kër bàjjan la ñuy dem. <laughs> baax ak bugg douze nag. def na si douze bi mu ngi bokk. douze day soulager nit. baax na kay xanaa ni kër. moo jëndee terrain. mu ngi ñëw mu ngi ñëw douze nga wala ñetti <laughs> tracé. ma ah. Moustapha. waaw coow na waaw baax yow da nga mujj soppali soppali ku fëgg jaay wala. ah man de sama recours bi laa doon toppatoo nii. Ah. mais procureur de la république nee na ma naa bay bañ tabaski ba pare. mu génne waatal ma résultat yi. man donc nga def man donc def su amul résultat. yow de élection yi nii laa gisee woon da ngay perte. Ah. parce que sa photo affiche bi ñaaw gi mu ñaaw. baax réew mi du ñu voteel ku ñaaw. militant bu ah, rafet yow ñëpp nañu taxaw di def nii ñii naan nii yow nga ñëw naan nii mais nan nag noonu boobu damaa yorul nag ah mu ngi noonu ah, réew mi doon jokk na eh, tafa bul xas sama patron bàyyi ma man saar ah, patron nga am rek ñaaw na xonoon lool eh, eh. aw ma nag jot dëgg la ndax liggéey bi yàlla su boppam gis nga euh, boo ñaanee nit wala nga soxla dara ci nit mu xañ la ko tàllal la directement sa loxo ci yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem da la koy yombala mm-hmm. yàlla nag moo yombal ren daal julli ji maa xew muy téer opposition bi nekk téer boo xamee ni vraiment li may ñëwal euh, pour opposition bi rek vraiment maa ngi sant. yow doo ñëwal pouvoir xam naa la. Euh, si des fois rek ay suppléant pouvoir laay voté. kii maa ngi leen di ñëwal kii. Mhm. ay dëssu. léegi nag yow li ma bëgg mooy. baax maam ñaari xar yu baax. yoo xam dinaa ko mën a tëbasee. ay tamba. sama jàmm. parce que ren jii moom. Hmm. dafa écréné. dafa jafe xar dafa ñàkk. waaw yaa ngi dégg. waaw euh, problème Poutine yi bari ak convention africain yi ñu bloqué ñi ñu tëj leen ñi ñu tijji leen. waaw waaw. waaw léegi daal mu bëgg daal teel a jënd xar. maanaam ren daal da bëgg a tabaski. bu baax. Hmm. ndax gëj naa tabaski. mais Tafa est-ce que doo dem côté Tëngéej. loo xew. xool ci xaru social yi am foofu parce que fii moom xar de <laughs> ah. social ah waaw ah, baax na. dañ seer ah <laughs> dama ti métti de. baax na kooku kooku xaru social yi da nga koy bàyyi waa parti socialiste. ah parti socialiste. ñoo soxla xaru social. Ah. man yàlla dogal damaa reg yor sama atelier nekk teer fashion. penda chef di ñëw loo xam ni Sénégal yëpp ngi ñëw di ray état beeg ñëpp maa ngi ñëw. léegi daal li la taxoon a mooy ay xaru tabaski. ñaar yu baax. loo fi yu ñaata yu à peu bii neex na ma. waan bii. bii neex na ma ak bële. xam nga yi nga laal. <laughs> yii ñoo la gën a seer de Tafa yow sa bopp. yii ñaata la. yii benn bu nekk 500 lay jar. Hmm? pour nga xam sa bopp ñaari un million. <laughs> yow seer de. mais ba sa xar yi dafa yomb. waaw waaw. est-ce que ah. xam nga xar yi dafa yaa gën a yomb la xar ci réew mi. léegi xam nga baax lu ñuy def 500 <laughs> 500 yi du ma ci du ma ci sax jéem a wàññiloo dara ndax boo yore xaas bu doy booy wàññi wàññilul da ngay wàññi sa valeur. Euh, léegi dinaa yebal sama apprenti bi Bachir bu ñëwee euh, jël si xar yi man dinaa la ko envoyé par Orange Money. ndage mbaay ko defee après nga mën a récupérer un million mais le plus important. Mm-hmm. mooy xam naa un million moom jotagoo ko ci réew mi. wala boog mosoo koo jot bu fekkee nga plafonné. nga déplafonné su ko defee mu mun la envoyé xaalis bi. déplafonnage c' est facile. Hmm? sa carte d' identité ngay jël dugg application mais loolu c' est tout ñëpp ko xam. non moom ma téyel la xaalis bi bu la neexee. fayam téye ko ne téye ko ne léegi baax na dégg nga Bachir dana fi ñëw na xarit nag ngeen sang leen. Tapha nag war ngay ñawal sa bopp nag moo gën yaramu neen téyër du def yaramu neen dafa tàng téyër du def yaramu neen dafa tàng waaw mais nga nga jiital sax dafa tàng dafa tàng waaw ñu def loolu kon jënd nga xar un million ñaari xar <laughs> Tapha kaw kontaan naa ci yow nag merci yaa ngi dajal xuuru xar yi ba léegi ma ba tey laa ko gën a bugg kon dinaa la quatre xuur am nga ko sama kër <laughs> tey laa ko gën a bugg ma ne ko quatre plus <laughs> ma ne ko 4 plus. na léegi. Uh-huh. xanaa xam nga li muy wax maa koy enregistré rek. ndax damay bañ ëllëg mu weet na xaru 1 la fi jënd. ndax wax waxaat dafa xew ci réew mi. wax waxaat wax wax maa waxoon da nga koo xeeboon man dafa gëmuma am amam. Hmm. fekk envoyé xaalis bi ba pare war naa defar digital di téléphone hmm. baa nga toj ba ngang. message yaa ngi wàcc yëgu ko. jaay na la affaire daal lii lay def nag ba ay vocal am di rëcc di dem. na la affaire. dangaa ruus dangaa ruus rek xalaatoo woon day jënd carte bi cinq cent mille xalaatoo woon mu jënd ñaar un million faa xam ne yow ren du ma la lebal man doomu lebal xale lebal yàlla na day lu tax doomu lebal jox ma sa yaay cinq cent mille mu dem Kenya jëndi tusi parce que rasulullah gis nga damay gerte xarit. dama lay laaj rek ndax jox ma sa yaay 500000 mu dem Kenya jënd étude. xoolal waaj bu baax boo bàyyiwul sama yaay bis boo bàyyiwul sama yaay. ah mais li ma la wax dëgg la. bàyyil sama yaay bàyyil sama yaay sama yaay du dem Kenya yi di jënd boobu tisi. ah moom a tàggu Kenya de. yóbbul sa yaay foofu muy jënd tisi ak mees. boo ma ko waxatee dinaa ñappal sama xol eh. léegi dañuy xeex eh. boo ma ko waxatee ñuy nokkante léegi laa wax sama yaay doogu bëgg nga may sama yaay sama yaay toujours ngay wax sama yaay day jël mees day taka mees day waaw ah, léegi sa yaa ngi France hmm. mhm. dem na France waaw France ak neex na deme France yi day laal ko tey bu fi solee robu <laughs> waxee loolu léegi ba sama xol lii daal daay yomb te neex fii may waxanteeg yow sa kër ngay toog jël sa facture fay ci sa application Orange Money te amul benn frais yomb na gaaw na lii moom sant yàlla moom dama koy jubilé moom ñu ngay nooree nii la yaakaar Nooréy nit la yaakaar. yeewul booy. Eh. Eh. maa xalaa nga nekk fii di nelaw rek yow bool yeewoon heure bi di nga xoolee ba kii dugg si place bi. eh kii kan. génnal génnal jox ko 200 eh. génnal kii yow place bi eh. dama bëgg a ñëw. man defal naa waaw defal naa defal naa di nga ñëw defal naa defal naa. man déglu dama fees fi ñu toll nii ñaw yëpp arrêté nañ ko. dañuy ñawaat. da ngay ñawaat par force jugal jugal. daa doole sax. waaye doo def benn effort da ngay bàyyi dof bi nii si bi jël. jël mesure ah jël jël wax nga c'est que problème mooy kayitu dof loolu mooy problème dof boo ko dóoree après nen da ngay perte. ñëw mooy fay de. ay dof dof ah kañ hmm. de. ñi ñi loi da jëlee la mesure rek. ñi loi da leen protéger de. looy ñawlu. man modèle nga bëgg ñaw. kii kii waxal. am nga ma weccit ma jox weccit. da e ngay rek tey nga problème fii lay toog. fii baax waaw. bindal bindal. loolu nga 256. bindal la sa bopp maa ngi bind ko. man dinaa jël mesure dox. tànk yi fii. jël ko rek jëlal rek nangul lekk nangul lekk. nekk. jël kii bu tooñul yaayam na ma ma jaaxal. salaamaaleykum Touré Meysa. non suubali non suubali. eh amul client amul téer damay lem place bi heure lem bi jot na. dañuy wàcc léegi. wàcc leen damay lem place bi. eh eh eh xaar moom génn ba pare doo lem place bi. xaaruma de. xaaruma damay lem place bi waaye dama koy lem dama koy seen biir de. yàlla sëñ bi yow. mais yow mais yow lan kii dof bi dafa am doole de. yow ay nga de. mais yow boo yoree place bu mag doo wut vigile. pont bi moo fi tëdd di nelaw. ba kii apprenti la kii loolu du liggéey da ngay wut benn gardien boo xam koo xam loolu looluy liggéeyam. mu toggal la ci bunt bi. léegi yow Tafa yoroo yoroo yoroo bu ndaw de. non non non garde Sénégal léegi nekkatul affaire doole de. waaw ah. garde ngeen Sénégal ñaari objectif yi ngay mën. Mm-hmm. da ngay mën xoole réy làmmiñ guddi gi jot nga yuuxu. waaye du doole. loolu kay lu la ci fay. boo ko lekkee yow kese lekk nga àq ah, ndax yaa ko yaa ko àqoon bee bokk garde bi. buy eh, ma eh, foo jullee nag yow. information ngay doon ma rek sama courant la ñu coupé ma bëggoon nga may ma orange ma ne activé ma ko. si possible dimbali ma. waaw teel naa ko envoyé. jërëjëf ah ma nu mu buggee lekk nag gis nga baax baax dinaa la xamal leen na de gis nga bu ñu mënoon am ñoo mel ni tafa ah suñu amoon yeneen yu mel ni tafa léegi kar yi jeex. yow xaalis de la kuy wax ak ko yow. da ngaa neex a nax. amuloo tifa boo ko xoolee ak or yi tax gis nga or yi. gis nga or yi dafa daa yor dërëm baax ci suba ba léegi yoo xam ne or përëm baax la nga may kare kare ci suba ba léegi ay xaratu tëgg la la euh, njool benn man duma ma sa morom ñaar maa la ëpp xaalis ñett gaañandoo ndox ma ak yow pour ni ay balaa falaa nii ma jël sama alal mais yow ëppee xaalis maa la gën a xam dëkk bi li fi xam. waaw d'accord eh, la kenn ku si nekk am nga loo ëppalee sa morom. je suis très super. léegi nanu dem droit au but lan nga may doyee. léegi droit au but pourquoi Tafa Touré di ñëw sama gétt te avertir ma loolu wala yow renseignement boobu dalaa raw. Tafa dafa ñëw di seqal. doo mu tool lay jënd. ñaata. un million. eh. ak takay seen or. Eh, ak dafa takkaas seen or. bàyyil or loolu du or preuve la. yow dangaa soxor ba naaj bi fekk fi. la moom loolu moom. man daal bi nga xam ne mënu maa andil information tellement wax bu fekkee mënoo sa métier nga ne ma mënu maa fen ma xam ne mënoo. waaw léegi nag dama lay loolu nag loolu dama la ci indi éclaircissement. Oh. yow xam nga ni lépp luy renseignement boo xamante ni Tapha ndekkee na ko yow añee nga ko lépp lu mu def indil naa la ko. man xam naa ne renseignement yaa ma ci doy ndax Google nga juddoo yoroo Facebook. non Skyrock. Skyrock mais Facebook nga judd nga yoroo waaw loolu moom yàlla dogal na ko. sa parents yëpp a ngi Instagram. non sama moom ñu ngi sur la bi lañ nekk waaw macha allah. ok d'accord léegi waaju baax. si nga Tafa yow lay bëlëfe mu def mënu ko un million yi mu jëndee xar noonu. Hmm. toogal di ko seetaan gis nga boo ko mayul woon buum <laughs> amul buum bu mu lu ma la eh. lu ma la waxoon. Ah. dafa taxawul noonu de. lu ma la lay wax moom. wax la gën a mën a kii xam na ko. Eh. day wax. laay la orange ah. ñaata la ñuy lebele. zéro franc ba cinq cent mille. waaw fu mu jëlee yeneen cinq cent mille. moo ma jaaxal man moo ma jaaxal. ñaw bu seeree ba seet cinquante mille ngay fay. eh moom ñawul sax ñawul ñaw yu muy ñaw ñaw tam xarit la. ay ñaw xale rek la fekk ay ñaw xale ay ñaw xale rek ay orphelin. ay des petits enfants de neuf ans six ans jeexoon. ay fan loolu da koy def uniquement pour tàngal sa xol. lu siyaas wax naa tafa tafa duuful lekkul poobare bay ñëw fii fekk ñu fii di jënd ñaari xar un million yoo xam ne demelee wax tey jibi jibi demelee waxal fan eh, jibi defal nanka tafa da liggéey da koo liggéey yow gisuloo tafa kon man gis naa tafa jibi diggante ñaari yuy ànd boo munul wax lu rafet dama la seetlu nag départ boo léegi. loo bëgg wax lu mu bëgg a wax foofu mooy ñii yaar depuis deux mille deux mille deux ba deux mille vingt deux ñu ngi ànd ak yaar. waaw loolu ah? yow saa yoo ñëwee fii day wax tafa loo xam ne warul loo ko wax te amuñu lan ngay wax tafa. sa jikko naa fi nga yaagal boobu ngay bàyyi. sekkuma ak yow loolu ah, eh, lay. seytaane nga laaw sekkuma ak yow loolu. kaaw bu ma waxati naa fekk. yow merde yow. kaaw man gënoo ma bandi. man maa lay. Eh, gënoo ma bandi gënoo ma doon xool leen ci xar yi bàyyi leen coow am moo tax nag sama xar bëgguñu coow non si coow na la fi am non non waaye waxati du kay sama dix waxati seytaane du kay sama dix no dama ni que ça soit la première ma ko lu eh, eh, eh. met dangay man ngay man duma neexu am naa li ma la wax lu leer na lu leer man ngay tax ma lu met xamal la non non ngay tax ma lu met bay sama bopp may ma ñëw eh ma nga ne la kële la. kële la fële. damay kële la. dama ne. kaw wala sees eh wala sees kaw. wala sees dero dero dero dero dero. wala sees wala sees. wala sees. dero. dero. dero wala sees. waɗa se e waɗa sese waɗa rewdoru mi lappanma de jooɗo jooɗo hade woni hade woni min ka patron ma jooɗo jooɗo jooɗo jooɗo waɗa sese jooɗo jooɗo e jooɗo addu addu jaso accu accu accu accu gattan sama hon bomo médité waɗe sese wawi waɗe sese daf leen nag ay kari de yëngoogul tabaski yi ñëw na ah musiba de ah ñeente kar rek mooy dogagum fii ay tabaski fii boo suba la tabaski si guddi kar yëpp mu saa mutoo mun na dem saa mutoo mun na dem ah yàlla baax na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va Ndiaye na def. na nga def. alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. aarikalla kay. naka liggéey bi ñoo ngi sant yàlla bu baax kay. ah allah. Ah, gis nga ko de xoolal boo bugg rek. mbaa mi ngi dox rek. ah yow de wax dëgg jàmbaar nga de. Ah. waaw noonu la góor baax na. jigéen baax. ah loolu de kar boo bugg mu defal la beau paradis. déedéet kañ. Ah, waaw. mun na nag kakay. waxaale rek la de waxaale kese nag. ah kon nag de saloo ba bu jaayee ba nga jënd ci bagage yi ba pare ah ma daal di ëlbatiku daal di laaj ci xar yu baax yi de xam naa ne su ma ko yóbbu defal ko surprise sama nijaay moom ah, wàccee ko njëgum xar <laughs> su ma ñaanalee day dal man nag dama indi woon bagage yi nga xamante ne daal mooy neexal biir néeg yeeg ñoomin seen hmm. waaw waaw hmm. xoola toj yaa ngi nii lii mooy toj sa mbaari mu naan teel am naa yii mooy fayal làmp bi yii mooy fayal làmp bi xool ka yaa ngi gis na mu jonga ma sëb ni jaay xam naa boo ci yóbbulee sama yumpaañ tey moom tubaarkaal la xoolal xoolal yi yi mooy ana sama xaru julli macha xoolal hee hee hee Modou Modou Modou Modou àll koy doy na yow man dama laa laaj yow dañu laa wax man dama ñàkk a fayda wala dañu laa wax man ah. aare naa la aare naa la polyphilie la xar ba wàcc. ngeen fas yéenee daj déglu ma fii déglu ma fii laa <laughs> wax eh déglu ma fii déglu ma fii laa la wax man dañ laa wax yow man man polyphilie la ah njëndul fer lan moo ci nekk. salaamaaleykum toj sa mbaari la rek. salaamaaleykum eh voilà bu ma tooñ. maaleykum salaam. ça va a ngeen def. ñoo fi rek. waay yow rek. ah kii kat daa bëri histoire. Oh, toj sa mbaari lan ana sa mbaari mu naan kës. tës looloo ne ci réew mi di. toj sa mbaari jàppal. baal ma damaa jàpp damaa jàpp léegi. lii daa toj njàpp. bu tojul njàpp tamit xar na njàpp. Eh. soxna si xam nga lu ma bëgg a xamal. fii du place fer wax dëgg yàlla yoruma xar yi takk fer yoruma xar yi woddoo beeco hmm. yii da am foo koy jaay dama nga jaay ji ko foofu hmm. ah boo ko defee nii lii man naa yàq samay xar gisoo kar bële nu mu def xoolal suufu kar bi ay xale lan kar bi mi ko xool di melestiku rek waaw léegi sax te sa mbaare googu toje ko ne le am ga am nga fer yi indi client sax ma takkal ko kaaw man ma takka fer man. baax na xoolal nag ruus naa la nag ruus naa eh xoolal eh xoolal baax naa la dama leen di nokka léegi léegi. Eh, soxna si demal la. demal garaaw amul problème. man may takka ay kii. lampa ngor damay sama yoon si lampa ngor. ay xoolal mën nga na tas yaakaar bi. demal nag soxna si fi ñu jaayukaay fer yow. yow may ñu jaamala mooy ah, jaayukaay fer ñu loo bi li suñu wërsëg la ñuy wër fii ngeen toog sax seen wërsëg ngeen fii wut si yéen lii lan la li moo tax rajo bi kii di wax kii di wax kii di wax leen ba pare bëgg maa filistré lii lan la yaa ngi filistré kan xam ne seen soxna yi takkuñu fer man sama e ñun suñuy jabar takkuñu ay fer ñun ay seen la tag ay kànnaar ma waa demal rek jox ma sa numéro orange man kan ah? mille un million waaw ah xam yenn saa yi mu leb xaalis nga bañ. waaw ah. yàlla tijji ay wërsëgam ci kanam. booy ma ma kenn du ko naax. looloo ndax na. ay frère lañ. <laughs> li ma suma la ko wax. dafa. Ah. yow bokk benn ma sa numéro yu ma la mayee. jëlee sama numéro. waaw sete sete. sete sete. ñaari nen kanaara yi. waaw. 100000 laa la yónnee tegal la ci mil francs yoo jëndee meew. xool ndax ñëw na <laughs> bon euh, puisque ñun amuñu temps am nay ñaw yi nekk duñu xaar suñu place na ma grand bi indil xarit place bi tis timit nuyul ma sama nijaay Tafa ah ma sama nijaay Tafa Touré nuyul ma ko <laughs> nekk sama yaay woon na ko dem waaye ko bu fekkee dafa changé numéro mu jox ma ko dégg nga Tafa adduna moo mun a dox eh, ñun suñu famille nii la de suñu famille maag Tafa Touré nii la de dañuy xaw a nëbbatu nii waaye yàlla yàlla ñu lay ànd baax yow kañ nga bokk ak Tafa Touré ñaata la la a jox si xaalis saa jox ma cent quatre-vingt-dix yi ma la abaloon démb envoyé ma ko léegi. xanaa yow may loo ma woon xaalis du ma may góor. a ah, da nga ko soppaliku bor. du ma may góor jox ma sama xaalis cent quatre vingt nga des sa dix mille jënd ci crédit mbaa connexion. mu jox la quatre-vingt-dix mille. cent quatre-vingt-dix jox ma quatre-vingt-dix. moom retiré waat na. kan moo ko retiré waat. si yoon bi law retiré. Eh. Kaaw jox ma sama 90 000. bilaa retiré waat naa ko. Kaaw jox ma sama 90 000. baax retiré waat naa ko ngay wax léegi lan lan ngay bugg léegi yow baax ah yow jaay nga xar 1 million saa waxaale ah. xare day xaru ah? ah, xaru jaay. kar. sonko nga jaay. xaru sonko bii laay sonko bu mu ni daa ko expliqué mais patron daanaan nga. instant hmm. yi xoolal lii yëpp. waaw xam nga téye booy liggéey da nga war a fexe bu jour tabaski mu fekk la nga toog ak sa ay njaboot. waaye jour tabaski ñu lay wër ci jàkka yi ngay fay sa téléphone dajale ay ñëw jàmm xaw ma loolu j'aime pas. vraiment ni a daanaan nga. waaw mi ngi noonu. léegi nañ jàppante. waaw évaluation bi nañu xool. évaluation la ñu eh évaluation yi benn. waaw ba xoolal ndax ñëw. Ousmane Sonko. ñoo ñawam dem na. Bouba Ndour moom. Bouba Ndour moom costume Afrique Afrique costume la waxoon lay moom dafa taamu jullee. costume taamu jullee costume. bu weex tamit la waxoon. waaw moom dem na. Adji Sarr. Adji dafay commandé wu. Adji ñëw fi ñëw ñëw na ñëw na ñëw xoolal postam ndox gi. ah moom moo commandé Borodé Borodé. waaw mi ngi noonu mi ngi fi yor. ak Me El Hadj Diouf. Marème Ndoye Angleterre asalaamaaleykum. maaleykum salaam maaleykum salaam. Moustapha. bàyyi defal yàlla ñëw na. na nga def. sant rek. ça va yas jàmm kontaan lool ci yow. alhamdulilah nga. ñu ngi nekk non non non. ah bu ko naan c'est bon. là il fait chaud mais quand même. ah il fait chaud de. il fait chaud de. waaye ne comprend pas bu bu froid ñu il fait bu nekkee ci digg bi ñu ne. voilà mais bon nit moom mel noonu même man tàngoor du ma ko supporté. gisoo sànq bi may dem juma boo yi ma àndaloon ñoom ñoom góor gi ak ñoom moomoo mais si naaj bi lañ ma teg. moomoo kañ la commencé julli ah mais j'ai souffert. moomoo kañ la commencé julli. ah mais bon. c'est bien. ah c'est bien bon maa la ñuy maa la ñuy wax nag. moomoo am na fit yëre yëpp pare na. moom moom moo nekk moo yër moo yër xale yi. waaw yër xale pour enfants yi. Ah, mu ngi nii di. daamina ah. rek laa leen daamina. mais c'est joli li rafet ah. rek. la ñawal moom kontaan naa kontaan lu mu la ñawal mosu koo ñawal nit. oh rafet na. saa ñawal moom. Hmm? saaj bi nag comme la ma la waxoon ci participation rek. saaj bi dama ko participer mais di nga si joxe benn somme symbole rek. waaw jox ma ci 15000 rek. soo xale yi bu ñuy dem seen génn foyer yeeg yenn affaire yi ñuy def ñu mën a am saak. d'accord naa kii nu mu tudd yow. man maa ngi tudd Bachir. ah Bachir enchanté d'accord kon maa ngi dem. la bàyyi ma yóbbul la ko. doo fi ah, <laughs> yow li nga yow téye saak. ah d'accord yow yow taxawee da ngaa yor sa xaalis di ko may nit ñi. Ah dëkk bi dañ soxla social ah. taxawaayu Sadio Mané ak góor si nga taxaw. voilà donc yow am nga orange am nga compte orange money. am na d' accord naa dafa transfert jox ma sa numéro. voilà doomu Guy Marius Sagna la. ah. ah. waxaat loolu de xam nga noonu mooy tooñ sax de mu <laughs> waxaat Guy Marius Sagna. papa day gërëm rek nga naa bëgg nekk sama cousin. papa la bari. voilà donc euh, vingt mille c' est bon. pour pour oh. boire. xam nga xam nga son bi xale yi génn léegi. oui ça va day yaa ngi may gars <laughs> non mais ñu laa de trop là. ok ah. Moustapha kontaan naa merci merci. merci beaucoup maa maa la ko indi sa kër. merci merci. ay vingt mille lañ may. jàppal ci loolu jàppal ci loolu baax na bu Adji Sarr ñëwee jël seen timit nga amaat noonu su ma su ma yéexee rek xamal jàmm naa xanaa tëbës bi daa wattu nag hmm? daa wattu xanaa si tëbës bi nag wat dalay sonal rek booy eh, mun nga wattu nag yow beñe rek xale jigéen yaa ngi toog ni nga bëggee beñ xale boo xam ni beñe rek bañee dugub bañoo ko beñee furiñ bañoo ko waa doxal topp beñee rek jour bi may yenn saag bi mbëggeel rekk ma daaneel ndax bi ma xoolee say bët xool say tuñ xool sa bakkan ni mu bindoo sama xel daf ni yar ci Nefertiti macha allah taar gi nga yor musuma gis lu mel nii tëdd naa bu guddi dégg lu ni taal ndeke boobu mbëggeel la yéema ni ma jibi hal huwal hada fi tarkal mu laa la wax ma ko ci arab ni ma jibi ana nga bëgg man ko naayaa mun ma nelawal man woon su ma yeewu naa la ko wax naayaa mbëggeel gi ma denc musuma yëg lu mel nii damay sangu di la gis di lekk di la gis di naan di la gis te naayaa lii ma yëg sama xol bis boo ma ko bañalee mooy crise cardiaque direct dee naa suuli nan ma te gëw mën sax. nee na ji bi ji bi bul jooy. yoo xam nga mag yow ñoo far. sëy waaw bàyyi jooy ma wax ak yow bàyyi jooy yi waa sëy yow lii tam nan la la mën a dalee. boobu ba tey nga bëgg ma musoo ma ko wax ah. démb lan ma sëy parce que sama papa démb la ma woo ne ma may na ma sama benn cousin bu nekk États-Unis kon waa ju baax dafa génn waaw génn na man de li ma jaaxal du loolu maa ñëw dem jibi ah. bul dem gum taxawal lu tax ba duma def lan laa fi dama am ku ma doon xaalis ah ma juum ma juum si numéro. non balaa ngay yeggale Kaaw man ngay waxal ni say soxla yow. yow Kaaw ak li may di ak li may traité yëpp ci gétt gi Kaaw man ngay wax tey sa problème yow. waaw léegi da nga may dimbali rek nga dimbali ma te yàlla tax xam naa loolu yow yaa ma si mën a dimbali jibi voilà di mu am ku moo doon defal transfert Orange Money. Hmm. mooy mooy jaawalee numéro bi mu dugg fii nii xoolal. un bi moom laay def doo. ci application orange money. moom laa ko def xoolal man te yàlla tax. bul tiit bul jaaxle looy rap rap. dem na sama gaal non sa xaalis demul bay. dem na waaye eh! ma wax la. bu doon beneen application. waaw sa xaalis ñàkk nga ko moom. ñàkk gu ma ko tax. parce que dangay dem woote si seen service client. ñu doog lay leen mën na am sax doo jot nit na. waaye bu dee application Orange Money. waaw sa ci dara. application Orange Money bii nga envoyé sa xaalis. ci application bi ngay dugaat def annuler transfert sa xaalis ñëwaat dugal ci application bi moom la. bësal. waaw. bi. menu mooy nekk bi waaw waaw bës naa waaw. bësal annuler mooy annuler bi waaw. annuler transfert. gis na message bi. ñëw <laughs> non jibi nag fii moom dangaa for fii nag. lan affaire orange money yi. application orange money dama ko lekk lan. dama ni la. bépp application transfert xaalis boo gis ci àdduna bi bu orange money ci gën a wóor. Eh, xoolal wuyu eh, ne la bu ñu ko kiiyee. Hmm. sa sa maam lañ ko waroon jox kuur xar yi ngay joxal nga jël ko boobu. surtout masa maasay masamaram tubbi nooy masabata bay tëmb. tëmb nga ne ay xuuru xar. ngay jël jox ko famille bi. sama xol moo sedd si yow. waaw léegi dama lay expliquer ni la yeeg dugg nga ci famille bu éparpillé wu partout dans le monde. fan lay dugg. am nga problème sérieux hmm. lii ci groupe famille bi lay dugg léegi ni leen kaaw nee na sëy maa sëy masa maram ay xuuru xaar koy may bu ma ree rek nga ñëw jël kaaw baal ma jibi de on doo rek day agasi tali bi Ondorak. xanaa rango moo la may sa verre ah yow verre dafa rango yooyu wala lan la. wala laajte rek. dama lay laaj ndax verre yi da nga ciy gis mu rango yooyu wala lan la. salaamaaleykum. waaleykum salaam. pourtant ministre de l'intérieur yaa ngi gis muy takk verre yi te ñeme woo ko wax. ah eh, yi nga soxla rango de. rango national la sëy. Hmm. dox nga waxtu bi nag. ndax ñu ngi ñuy doon waaj a ataay eh, hmm. ngeen ataay hmm. baax na baax na ataay baax na. ah sëñ nga bëgg ataay. moom je préfère ngeen defar njar. tëmbal ci glace mën naan ko. sama xol sedd. xale jigéen ñi xamuñu ku leen jox mbëggeel. ah ci lan. Naaya war naa xëy. jàkkaarloog Naaya yëg li ma yëg ci moom. te du bu guddi Touré. di xalaat lan laa war a wax Naaya ci wax ju gën a rafet. wax ju gën a neex. may toog di xalaat maak sama staff ba deux heures du matin. ñu jukki benn texte quatre phrases. ndeysaan. ma xëy sangu ba set soo sama yëre yu jekk parfum. daagu ba kër Naaya toog. jàkkaarloo moom ci bët xool ko si samay bët yi gën a rafet wax ko sama mbëggeel naa rejeté ko. non waaw loolu damay pétaw bu. wasaa eh, booy damay dëgg eh, booy. Eh. sëy xale yi jigéen yi mooy loolu seen mbëggeel yi. patron xale yi jigéen waa ji ah. eh, ma wax <laughs> loolu dafa riis gis nga sëy xale yi fi ñu toll seen mbëggeel dañ koo xale yi jigéen dañoo bëgg mbëggeel gu vulgaire. te yow da nga positionnel boo ko da nga positionnel daal yow nitu positionnel. dañ laa rejeté. mais sëy da ngay rek naa da xam naa ni. man de muñ a taxaw ma yaram. léegi nag yow dem nga def nga kii yóbbu nga si constitution bi ñu xool ba xam. conseil constitutionnel bi yor wàllu mbëggeel. waaw dem nga foofu def attaque. bi mooy sept fois may déposé bii ñu ni ma liste bi dafa bari bi ñun ma liste bi dafa wàññi te man leer na ma ni list bi ma déposé pour naaya lépp man na ba defoon naa ci ay suppléant sëy yow pour constitution bi de man de validé nañ ma waaw dafa mel ni yaa si plan bi de naa yaa dem naa ba ni ko ni ma la bëggee kawas bëggeewu ko tànk ndeysaan njëkk ni ma la bëggee. menuisier bëggee wu ko martu. dem naa ba ni ni nga ni ma la bëggee. Euh. maçon bëggee wu ko weex. dem naa ba ni ni ma la bëggee. policiers yi bëggee ko étudiants ah ma nekk nii ma la bëgg. déet déet déet déet déet. muñal muñal muñal. yow de lu Sonko bëggewu ko bool. déet déet yow de lu fi lu Viviane woyoon mu ngi soog a am. soog mais da nga ciy tëmbal glace nag wax ko sa ndey mu sot <laughs> lool. amoo ah loolu rek nga mën a lool. mbëggeel gi de tëmbal glace moo ko yor. waaye maa ngi jooy ci mbëggeel. parler de. non kenn du Titi. mais Titi sax bari way. déedéet Titi de billaay ci ma ko mën a luy si tabaski bi ñëw tabaski sama kër. Titi waaw wayal ma sama yaay boo ko laalee. ma jóg taxaw di si biir sama yaay lay way lool ma taxaw naan boo ko sama xam sama yaay dafa am wujj. waaw. léegi nag sama wujj yaay laay taxaw si kanam naan ko boo ko laalee. ma taxaw ci ginnaaw naan boo ko laalee dinañ lal. oh loolu dafa garaaw. barke yi loolu Mbaye Guèye dafa tiit ba nekk allahu akbar la ngay wax waa kii maa bel kii du sama tëye. maa bel ci jàmm alhamdulilah. ça va ça va bien xam ne nag yàpp am bële. wallaay la lépp ah. ma eh, waaw. yére bi ma la waxoon pour euh, lakkukaay bi. waaw bi ngay ma la waxoon na oyof ndax fi ma jëm dafa xaw a tàng. pare na. xale bu xam daa neex a àndal. waaw dëgg du neex ñi ne ban différence la ñu rawante. Mm-hmm. xam temps. am yo xam ay jigéen ñun mais xamuñu temps zéro temps. fekk moom daaneel rek ci am solo. waaw te mooy mooy mooy lépp. daaneel rek <laughs> ci am solo rawante de. waaw. àdduna kat laalante rek la. Mm. soo ko laalee su la boo ko laalulee. léegi yooyu rek am ci àdduna. gis nga waaw lii moom. yaa ngi gis. waaw léegi saa wàññi kay hindu naar la foofu. waaw hindu naar la ko an salto. waaw ba pare bare bu tabaski bi daal man d' accord naa. 17 poches naa la xam nga ni yaa mi fi gën. ah yaa meilleur. ah yow tamit kenn man ko réew mi ñëpp. dinañ xam ne ren ñawlu na. kenn du yow kenn du yow borom daal. Ah, waaw waaw ki nga àdduna. un bon kenn yow borom daal. ñett ñu baax mën nañ defar réew waaye ñett ñu bon na nañoo yàq réew. France kay nga gis ñetti nit ko defar. ñetti nit waaw. ñett ñi da ko respecté de. ñeneen mhm. ñi dox seen ginnaaw. oui ma xoolal bu sonal sa bopp jarul def ci sachet. oto laa yor mën naa ko dugal ci biir oto bi. ayca ah, ayca waaw mi ngi doon continuer véhiculer. bien. jërëjëf xale jigéen yëpp a véhiculer man de góor ñi du ñu véhiculer moo ma jaaxal. ah góor moom loo am jox ko jigéen jigéen véhiculer ngay dox. patron. Hmm. kii doo ma ah <laughs> loolu dara yaa sama xarit. fi may waxante yow ne julli gi macha allah. dañoo lépp pare lool waaw li ma mën dama ko ne ma ñaw. jël. ma ñaw ko sama yaay waaw boobu jël. man lii ku ma ko du ma ko gëm lii. toog ba tabaski bañ na suba la tabaski. waaw nii benn demul. loolu la yàlla dogal. yàlla lu mu dogal si nit doo koy xamal boppam. man nag xam nga leen laay dama war a dem nii sama kër waaw fay ma sama xaalis may dem. mu ne. tottam xaalisam ma ni nga fay ma sama xaalis dangaa waxoon ma nakal la si daral bi nakal naa la si fii jaay nga lu nga mun nga jaay lu munul jaay yàlla mooy des man damay dem heure bi mat na fay ma sama xaalis may def nii day dem sama yoon. mais Kaaw yow est-ce que totalement yow yow yow yow nit nga. Kaaw est am nga xel. kaaw est-ce góor nga nan laa jëlee sama alal investis ko lu sol muy la grand investissement benn xar demul nga naa ma fay ma yow yërëmoo ma nga naa ma fayma ma yow war nga ma wax fay ma yow. man man lan man lan mooy naka sama yoon si xar yi. eh lan lañ signé woon man ak yow. lan la signé woon ak yow. soo ma jaayalee bu jaralee ma fay la bu jarul ñu denc ko. ala eh, ala ala ala ala ala ala ala ah, loolu mën a ak yow. waxuñu loolu man ak yow eh, baax baax yàlla mooy tim ñëwal nga jaayal ma sama kar ñu xool su suñu ne suba la tabaski boo ñëwee ma jox la sa xaalis loolu lay wax ma waxuñu xar des na waxuñu tànka xar des na waxuñu dara man sama yoon nekkul foofu eh. ñii daa xaala koy. totam xaalis li moo tax man pour ma dimbali nit toujours ñu naan waaju baax dafa soxor. jàppale wala ay mbokkam du jàppale jarbaat yi yu mel nii. waaw waaw mais quelle catastrophe. waaw waaw yow waaju baax nga man kaaw la. sama xaalis bi na ma man ak yow ñu xeex man ak yow fii. bilaa walaay sama xaalis. kon pare nga ni pour raak pare nga pour xeex eh loo jël nii décision xeex indi xaalis dina mën a njab a jeeg xaalis jox sama xaalis bugguma wax de yow yaay jaam yow yaay nakate yow jaam yow boo xoolee samay xar waroo ma sax fay ko yow yaay jàmm. am naa lu ma doon fay dama doon xool sa jikko rek mais yow traître nga. man ja tam xarit bul ñëw fii de. kan yow. tam xarit ñëw tam xarit bul ñëw 31 damay dem kër maam booy jaaw fesal ko nag bi <laughs> yow amuloo <laughs> tam xarit ah. <laughs> sa orange money. ah xoolal sa orange money. man man man du ma yor orange money di xeex. damay faj soxla yi fat fat. waaw dugg na waaw. fii boo fi toogee minute boo fi toog fay impôt naa la sa xaalis heure boo fi toog ma fay la impôt. baal ma ak a nga baax baal ma ak yàlla yàlla boole baal. xam nga xaalis xaalis buntu bu mu fekk day tappe ko rek day jóg. salaamaaleykum. waaw Jim. Kaaw na def. ça va na nga def. ça bien. soo waa bee wa. waa baax. baal ma ak danga ji. ah no amul solo. a solo amul solo amul solo waaye ak ah, kay man maa leen ko amee man mi nga xamante ni wax dëgg na xaal liggéey ma fi te dafa mel na maa ngi fii liggéey. dëgg fa waa ju baax nag nit ku baax la. Hmm. wax dëgg na xaal lu mu am. bokk na ak jaam yi. te li nit ñi am mu bàyyi ak ñoom. wax dëgg na xaal tasul yaakaaru kenn. Hmm. macha allah rabbi ñàkk yaramam bii du dara. Hmm. lu lu baax. baax rek moo tax amul geres waaye tey bu meloon na mu war a mel mm-hmm. kon kenn waxatu ko kon yow yàlla na yàlla guddal sa fan wallaahi amiin sunu famille ba ma ne baax moo may jox xar dañu jibile xale yi di yuux naa waa koñ bi kaa leen xool dama foto xar mi mm-hmm. dugal nga xar mi ngi ma war a jox ci tabaski bi dugal naa ko ci groupe famille bi xale yi di way naa ko waa koñ bi kaa leen xool kon nag alhamdulilah rabbi alamin ba madame lam ko war a togg yëpp mëni beeg yëpp yónnee na ma ko brochette yeeg côtelette yeeg nan ko war a toggeeg lépp fi mu ne nii jël si mi rek laay def pour dem loolu rek laa doon kii sant yàlla rek alhamdulilah taximaan bi sax dama ni ko bul fay parce que damay ñëw rek yeew xar mi ta dem na ah. yaakaar naa bee la woon alhamdulilah si y xar mi dama la ko diggoon rek waaw dama ko diggoon rek waaw man kay xam naa loo loo def nga ko macha allah rabbi boobu dafa dafa am lu taxoon ma déglu ko nii rek. waaw ah. mais nekkul xar moo xam ne dama ne la yow yaa ko moom moom ngay tëbaski. dama ne la xar mi yéene naa la ko. xar xa euh, dama ne la yéene naa la ko. ah. waaw mais nekkul xar moo xam dama la koo may ba ngay woo sa famille. dama ne yaa tax ku ma bu fekkee da ngaa nekk ma dara nga jëndi xar. li nga ma dig moo tax jënd jiwuma xar yow yaa tax man sunu waa kër bu kenn jënd xar xar mu mag lan ma jox maa ngi koy indi nga naa maay dama la ko digoon noonu kese. digaate yàgg na a réew mi président bu toog da ngay dige avant ngay toog lu ne ngay wax man ba ma lay dig moom maa ngi soog a samp gétt gi. eh eh eh. man damay tuur deret par force. bu ma reew mi yow sa wàllu bopp laay yeewu. dëgg ma eh, eh, dama bul tabaskee sama patron. dama ni eh bul tabaskee sama patron. Eh, yow la eh eh amu ci de eh amu ci de. dama ni xar mi wala yow nga dem. jibee taxi baa ngi ni fayagu. ah Ibrahima Ismaïla nga ko bëgg a def. dama ni ah. maay doon Ibrahima mu doon Ismaïla. doo taf ko sama mu doon Ismaïla. Eh, eh. Eh, dama ni waa koñ bi kaa leen xool. waa ji baax tabaske. waa koñ bee kaay seetaan waa ji baax laay tabaske. amu ci. dama may jox xar sama patron kay dama ni. Wakonde eh, eh, kaay leen eh, seetaan wax baax laay tabaske Wakonde kaay leen xool ak Orange Money dañuy gën a tabaski fii ba tabaski gi taamu leen di jëfandikoo seen kalpe Orange Money moo xam nga yónnee wala ngay jot xaalis ci biir réew mi wala ci bitim réew ngir jot ci benn ci ñaar fukki xar yu ponkal yi ñuy mayee semaine bu nekk téléchargé leen gaaw seen application Orange Money gën a yomb gën a wóor gën a sakkan Orange Money Orange Money gën a yomb gën a wóor Orange